فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولا شرادي خير العلم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 sëñ Ahmadou Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom sëñ Cheikh Faati Fall moom maam Thierno Birahim euh, waajuram bu jigéen itam soxna Marème di doom sëñ Abdou Khoudous moom maam Thierno Birahim kon euh, euh, génnul yoon bi fenn sëñ Ahmadou nag daanaka moom jarut présenté sànq maa ngi koy gaar waaye daa ne woon jaru ko <laughs> Euh, yaakaar naa ñu bari xam nañ ko ci liggéey bi muy def ci yoon wi euh, ànd ak sëñ Abdou Khoudous moom sëñ moodu moom sëñ Abdou Khoudous moom maam Cerno Birahim xam ne kon euh, mel ne doomi doomi nijaayam la moom moo toog noonu moom itam kon di leen dalal bu baax a baax ci barab bi di kër kër sëriñ Touba di këru lislaam di ko Cheikh Mahamadou Mourtada daan waxee fii ci Marseille Euh, nga xam ne barab bi mën nañoo wax ni waa fédération sud bi yëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko ànd ñoo ko ànd ba jëmmal ko ak murit yi fépp nag sax fu ne ci àdduna bi murit yi euh, def nañ ci seenu ñaq kon nu ngi leen dalal fii di bëgg lool lool lool lool waay wi xam nañ ni yoon wi xat na te daanaka sax programme yi ñu ko woon naa bërki démb lañ ci wax rek ba nga ne moom kon naa mujj far euh, jaar si rek waaw ñu wax ko mbokk taalibe yi mel ne ñoom ñëpp doon Euh, allawtiku information bi bi ñu ko yëgee ni sëñ bi war na fee ñëw mel ne mbokk yi bég nañ ci lool te di koo xaar yaakaar naa bu ñu ko gënoon a waajal moom xëy na moom mën naa demee neneen daal <laughs> waaw kon daal nu leen di dalal euh, ni ñu bëgg a doxalee yëf yi rek nga bu sëñ Ahmadu dañ koy bu jox mu soññee waxtaan waxtaanee ba noppi dinañ euh, jël ay laaj am na ay mbokk yu yu fi yónnee ay laaj laaj yi xaw naa bari waaye liñ ci mën a jël rek ñu jël ko. bu sëñ bi lim ci mën a tont it mu tontu ko eh, bu laajee bu laaj yi jeexee bu ko defee eh, xam naa sëñ bi dina eh, soññee ci wirdul maxuus ñi nga xam ne bëgg nañ koo jël wala bëgg koo yeesal itam bu soobee yàlla ñu def ko ñu ànd ko benn jataay sëñ bi yeesalal leen ko ñi ko bëgg a yeesal ñi nga xam ne dañ koo jëlagul itam sëñ bi jox leen ko leeral leen xam naa lenn ci charte yi ak soññee ci itam kon yaakaar naa noonu lañ bëgg a doxale jataay xëy na bu ñu demee ba ca mujj ga ñi nga xam ne ziyaaraguñ ñi mu ñëw ci ginnaaw gi ñu ziyaar da bu ko defee yëkkati jataay bi kon damay jox sëñ Modou Seck rek mu gën a dalal suñu gan ñi laataa ñu jox sëñ Ahmadou mu dugg ci waxtaan bi incha allah bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa suriyatihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi ddin ixwata al iman wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen balwaq di leen balaq di leen masaw ci coono yi di jiital ci nuyoo bi ak masawu coono bi suñu gan ñu tedd yi nga xam ne ñoo ñëw fii tey ci ñun muy sëriñ Ahmadu ak mbokkam mi mu àndal di sëriñ Abdou Khoudous ni ko sëñ Lamine waxe léegi rek muy gan goo xam ne dafa jóge ci maam no delluwaat ci maam Thierno yaakaar naa ne ki jóge ci maam Thierno delluwaat ci maam Thierno su teewee ci jataay boo xam ne jataayu xam-xam la jataay la boo xamante ni warees na faa sàkkoo xam-xam jort naa ne war naa mën a yomb rawatina itam ki nga xam ne moom lañu wax ne moo meññi juróom bu jigéen sëriñ Abdou Khoudous xëy na maam Thierno moom mën nañu ko jàng ci ay téere mbaa ñu dégg ko ciy wax waaye nag sëriñ Abdou Khoudous moom dañu ko gis dañ ko teg sunu bët dégg ay waxam gis ay jëfam muy koo xam ne yaakaar naa ne ku ko gis ku nekk nuñ la melal melal maam Thierno rek yaakaar naa dana war a yomba dugg ci sa bopp mu doonoon ku gëm yàlla ku ragal yàlla kuy topp yàlla te daa ko digle fu mu toll yaakaar naa ne am na xotbaam yu ma mujj a dégg bu dul kori di tabaski yaakaar naa ne xotba boobee bokk na ci loo xam ne ba jamono jii ma toll fu ñu toll ca xasida googu sama xel dana dem ci moom ndax kero bi mu ci tolloo di ko waxal boppam dafa tuur ay xéewal moom sëñ Abdou Khoudous ci baat bu yow ci mi ngi ci sindiidi bayit waa nga jaay dafa surtout waxiidan sama yàlla muy fàttali de bàmmeel bu demee ba ma demee ba tàbbali ci biir bàmmeel ba ñu fàtte ma ba xel yépp kenn xel dematul ci man ba ñépp fàtte ma bu keroogee suñ boroom yàlla nag ma wàllu foofee ci kilifa gu toll ne moom ak fi mu toll ci boroomam di fàttali ko barab boobee xam ne jaaruwaay la boo xam ne ñëpp daañ ci jaar mu di ko fàttali ak bàyyi ca xelam ba bu ca tolloo sax ay xéewalam di tuuru muy soññee boo xam ne ba ba saa di taxaw du fi jóg ku ko dégg ku nekk rek dana la bàyyee loo xam ne foo ca tolloo sa xel dana ca dellu mu nekkoon ku ragal yàlla koo xam ne wax nañu ne sëñ Fallou Mbacké seedal nag ko ba tey ndax am na mag mu ma nettali ne ma am na bis mu ñëw daaru ci sëñ Abdou Khoudous bi mu ñëwee da ko fekk mu toll ci melokaan woo xam ne daanaka yaram wi dara nekku fi mu jeex takk ndax koor gam dëkkoo ak jaamu yàlla nga xam ne neen sëñ Fall da ko ne ma Abdou Khoudous ana lii li ko fi jar ah Abdou Khoudous lii ana fi jar mënoo fexe ba jëkk nu àjjana de <laughs> mënoo fexe ba jëkk nu àjjana de waaye xam nga waxi wàliyu mënoo fexe ba jëkk nu àjjana àjjana moom bala la caa kenn jëkk da laa jëkk a dem xiyaam <laughs> te yaakaar naa fi la ko sëñ Fallou bàyyi waaw sëñ ne ko mënoo fexe ba jëkk nu àjjana waaw fi ko sëñ bàyyi muy koo xamante ni bi ku ragal yàlla la ku doon jaamu yàlla te di ko digle fu mu toll ak di ko fàttalee kon kooku ko bàyyi koo ci moom delluwaat ci moom muy maam Thierno yaakaar naa ne fi ñu lay séentu yaakaar naa ne ku la fa séentu war na la faa fekk kon sëriñ bi noo ngi lay dalal ci euh, kër gi am na sa kër maama sa kër baaya sa këra di di la siyaare bu baax a baax ci bëgg itam ci ñëw gi nga fi ñëw jaar gi lu mu gàtt gàtt rek mm, neex na ci ñun lool ndax fii bari na fi ñoo xam ne tey lañ lay doo gis ak bët ba ci benn ci man mi waaye yaakaar naa ne déggoon naa la déggoo xam ne dafa mel ne bés bët bi rek moo la gisagul waaye dafa mel ne xol bi gisoon na la waaw tey waxtaan yi may dégg rek ak ak jataay yi wax dëgg yàlla moo ñor di woon loolu lépp ñoo ngi lay ñaanal yàlla na yàlla gën a leeral sa xol gën a yokk xam-xam bi gën la dimbali ci euh, li nga xamante ne bii mooy yoon wi nga xam ne moom la xàll di siraatal mustaqim gën la dolli njub ak ndimbal ci barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb Maam na kon noo ngi daaneel kàddu yi rek di siyaar ñëpp te yemale foofu kàddu yi rek xanaa ñu jox ko ñu taataan xol yi yal nañu ci yàlla defal ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 wa bi arshida mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di am mbégte mu rëy ci jataayoo ak yéen di sant yàlla bu baax itam dolli ci la ma ko santoon ci lu baree bari loo xam ne gis nañ ko fii démb ak tey di jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko teg ci eh, mag ñi nga xam ne ñooy kilifay jataay bi tabale sëñ Moodu Sekk mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak sunu waajur sunu sëñ ngeen siise mi nga xam ne noo bokk dëkk fa fële ci Daarul Muxti waaye di jaar itam ci sunu wëlëre sëñ Abdul Quddus sëñ Abdul Quddus Mbeng mën naa ne ak sëñ Mouhamadul Amin Lo mi nga xam ne moom it yàlla def nu am kóllëre gu dox sunu diggante ak moom nu eh, am lu bari lu ñuy jokkalante ci gëstu ci wàllu xam-xam yàlla defit nu ànd aw ca gànnaar loolu lépp nag def ak kóllëre gu dëgër suñu diggante taxoon bi ma ñëwee ba jege fii rek moo woon ko ne ko dinaa fi jaar si boobu nag xaw ma woon ni dinaa fekk sax mbooloo mbooloo mi ak soppe yi ak murit yu baax yi moo tax na sëñ Abdul Xudoos maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp eh, sëñ Xaadim maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp kenn ku ne maa ngi lay jox loxo dina la siyaar di sant itam ci eh, taxawaay bi ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey fii di ko liggéeyal sëriñ bi loolu noo ngi ci sant bu baax tey ñaan yàlla nangu lépp te fay leen ci ngeen di fay ginnaaw loolu nag soññee bi xam naa moom la cay jiitu rek mooy sunu sëriñ bu baax ba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu daa wax ne àdduna dafa gàtt te nee li muy gàtt gàtt dunduk doomu adama ko gën a gàtt nee na dunduk doomu adama itam li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy tëlee ko gën a gàtt ba tax na kon da ci daa teg de kon kenn ku ne war naa góorgóorlu ndax yàlla dañu fee indi ngir nu jaamu ko li ñuy def lépp dañ ko def jumtukaay ngir mën a jëmmal ko suñu borom googee te mooy nu jaamu ko fii ci kaw suuf wut gi ni wut alal ak njàng meek xam-xam beek dox beek kër-kër yépp jumtukaay la ngir mën a def nag li nu fi indi li sëñ seelu mbakke mu baax ma daa wax ne li nu fi indi bàyyi nu fi te mooy jaamu yàlla jaamu yàlla jooje nag sëñ bi daa wax ne moom adduna dafa gàtt ku ne xam ne àdduna ba mu sosoo ba na muy tukkee diggante bi lu gàtt la ci boo ko xiyaasee ci ndax nun jamono jii nu dund rek maanaam day nur lu bari ci noonu waaye lu gàtt gàtt gàtt la xam nga biddiw yi ci kaw espace bi am na ci ñoo xam ni ay milliards milliards at am nañ ko ci am nañ ko fi te àggaguñ ci waxambaane sunu suuf si nga xam ne moom yàggagut ñu ngi koy xiyaas ci fukki milliards yi at ak ñett walla lu topp kon nag doomu aadama moom diir su gàtt la fi ne mala yii am na ci yoo xam daanaka ayu bis gi ayu bis la ñuy dund nga ne moom loolu ki ci gën gudd fan mooy ki dund semaine nga xam ne ñenn ñaari fan la ñuy def ñett loolu boo koy xool day tuuti ci yow waaye yow ni mu tuutee ci yow it noonu la am ñoo xam ne ñoo la ëpple lu ñuy dund ba yow sëg dundit du dara ndax téeméer at du dara fii adduna bépp boo ko boolee maanaam du dara ci dunug suñ borom moom kenn du ca xiyaas dara ndax suñ borom daa tàmbaliwut fenn moom te du yem fenn moom insha allahu taala wal awalu wal axiru wal zahiru wal baatiru waaye lu mën a xew dundug adduna gi lu gàtt la Sëñ Tuubaa teg ci nag ne li muy gàtt gàtt dundug doomu aadama ko gën a gàtt doon doomu aadama moom du tus moom du dara ndax téeméeri at moom loo fi yàgg-yàgg moom doo ko fi am wala boo ko fi amee desee lijjanti yow des lay lijjanti di la bijjanti lu ñu looy def dañ la koy defal te téeméeri at fi ne xam nga moom moom mooy ka gën a yàgg moom mooy am loolu juróom-ñaar fukk moom ku wax ba am ko gudd ngaw fan xam nga loolu yàggut yow man xiyaab bu ñu fa demee bis penc benn bis boobee suñu boroom wax nañu ne juróom fukki junni at lay lay lay tollal nga xam da nga ko war a taxaw nag moom juróom fukki junni at yoo xam ne cinquante mil ans yoo xam ne da ngay taxaw ci benn bërëb mooy tolloog mooy tolloog benn bis ci sun bis yi xamsiina alfa sanatin kon dund doomu aadama lu gàtt la ni ko sëñ bi waxe sëñ ba teg ci nag ne li muy gàtt gàtt moom adduna li muy gàtt gàtt dunduk doomu aadama ko gën a gàtt waaye dunduk doomu li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy tëlee ko gën a gàtt fi mu ne doomu aadama bu juddoo ba keroog muy am ñaar fukki at nga ne moom ku ñuy lijjanti la ñu di ko yóbbu muy jàngi di ko dimbali ay waay waajuram di ko teete waa mi fukki at juróom-ñett xëy na tàmbalee man dara kattanam ay kattanam tàmbalee feeñ xelam tàmbalee ubbeeku am njàngam it tàmbalee nar a jeex bu dul njàngum tubaab njàngum tubaab moom ñaar fukki at ak nangam la ko def moom sëñ doo jeexal ko ndax daa yàgg surtout suñ réew mee dañuy jànge fii nag na ne moo gën a gàtt bu ma juumut ndax beneen waaye fee mu xam nga da nga primaire bi rek kan juróom benn at di nga ko def defaat ñaata at ci mutawasit bi ñetti at ñeent def saanawiya def fa ñaata ñetti at doo ko dem université nag dafa ñetti at doo ko am licence nga xam ne mooy tàmbali bi moom <laughs> doo ko nag doxat nga xam ne yow ba keroog ngay am ñaar fukki at moom yow tàmbalee ko boo xam ne ñaar fukki nag xëy na sam njàng jeex nga tàmbali nag ci wut loo mën a jàpp ngir mën a taxawal kër loolu ba keroog nga am ñeent fukki ci loolu ngeen ne daanaka la ngay taxawal du taxawagun daanaka boo amee ñeent fukki at juróom nag daa de mën a am kër am am njaboot nes tuut ay feebar song la yoo xam ne maanaam ay jabeet ñu aaye la lu bare bare bare moo tax suñ bi wax ne fii muy mane ak fii muy tële moo ko gën a gàtt moom moom dund gi fi ne boo dundoon juróom benn fukki at jàppal ne ñaar fukki yi moom da koo nelaw moom ndax bis bi dana am juróom-ñetti waxtu yoo xam di nga ko nelaw am juróom waxtu yoo xam da nga koy dem ci liggéeyukaay ba am lu gën jaa néew dégg nga waxtu woo xam ne ci lekk ak naan nga koy def bokkut ak li ngay wuyu téléphone nga xam ne dana jël waxtu moom ak li ngay xool message yi jàlloo na yooyu yooyu yëpp boo li ngay des ci waxtu maanaam dund gépp juróom benn fukki yi daanaka ñaari at nga ci am yu jëm ci julleeg woor ak ñëw ci dayra beeg yu demee noonu te yow yàlla dala fi indi ngir nga jaamu ko yow xam nga loolu sëñ bi lu mat a bàyyi xel la moo tax dund gi lu ci bari day dem ci yu kenn xamul moo tax sëñ Tuubaa daa ci teg nag nekkoon kon góorgóorlu lu ko mat a mat la góor góorlu nag sunuy dund xëy na gàtt na waaye am na ay mbir yoo xam ni ku ko yàlla taw feexal danga mel ni ku gudd fan ndax danga ci jële ay tuyaaba yoo xam ni dana doy sëkk ba kawe sa njot yooyee mbir yu bari la Sëriñ Tuubaa dara wax ne jëf yi yu baax yi bari na waaye li ëpp ab yool ëpp tuyaaba ëpp barke mooy yi nga xam ne njariñam dalaa jéggi lu mel ne jàngale xam-xam jàngale xam-xam loolu lu am tuyaaba la moo xam dangay ngay jàngale alquran wala ngay jàngale xam-xami diine yi wala beneen xam-xam bu man di doon rek ci xam-xam yi nga xam ne dana amal njariñ njariñ nit ki ci dundam fii ci àdduna wala ci àllaaxira Sëñ Tuubaa waxoon na wa kulli ilmin bi manafia yi bépp xam-xam bu am njariñ rek xam-xam boobu nag kon kenn ku ne ci noonu bu mu ci xeeb dara ci xamal nit ki ndax yonent bi waxoon na ne la an yahdiyallaahu bika rajulan waaxidan xayrun laka min na am suñ boroom gindee ci yow jenn jëmm moo gën ci yow adduna ak li ci biiram loolu nag bu ngeen ko seetloo seen daara ji seetlu naa am na fi wet goo xam ne ak mbooloo moo xam ne da leen a féetale ci wàllu jàng ak jàngale ñaareel bi ci yi nga xam ne dalay jéggi bokk na ca mooy euh, lu mel ne xidma xidma ab principe la ci ci ci ci ci yoonu murit ponk la ci biir yoonu murit te mooy jëf joo xam ne danga koy jëf muy jur njariñ njariñ loolee yow doo seet ka koy jariñoo ku ko mën a jariñoo rek baax na waaye ndax yow danga koy def ngir yàlla te doo ci wut ak pay doo ci wut ak cant doo wut ku ko xam ka koy jariñoo mën naa nekk say waajur mën naa nekk sa mbokki jegeñaale mën naa nekk sa mbokkum taalibe mën naa bañ a nekk sax ab murit di sa mbokkum jullit rek waaye mën naa bañ a nekk sax ab jullit di sa mbokkum doomu aadama képp mën naa bañ a doon sax doomu aadama doon am mala ci mala yi moo xam am muus la wala kenn ci mala yii nga xam ne wala ak garab guñ gëj suuxat yooyu yëpp la nga leen di defal loolee bul ko xeeb yu bari njariñ yu bari tuyaa baa ngi noonu kon ni ko sëñ bi waxee góorgóorlu ci àdduna lu ko mat la loolu nag boo ko seetloo dayira da ko dajale dayira am na wetu xidma am wetuk jàng ak jàngale am wetuk jëf am wetuk dégg nga zikr mooy tudd yàlla tudd yàlla ci xeet tudd yàlla yépp rawatina xasiida yi nga xam ne dañ koy jàng di ko def kuréel kuréel di lu barkel ndax genn xasida bu fekkee kuréel bi mat na ñaar fukki nit ak juróom day mel ni xasida googu jàng nañ ko ñaari fukki yoon ak juróom ak mboolem li ne ci dayra ci joxew ñam ak jokk ak bokk ak siyaarante ngir yàlla te loolu yonente bi daa waxoon ne sunu borom ci moom moo wax ci xadisu qudsi ne wajabat mahabbati lil mutaxaabiina fiya wal mutajaalisiina fiya wal mutabaadiliina fiya wal mutazaawiriina fiya mooy sunu boroom wax na dama waral sama cofeel ci ñii mooy ñi nga xam ne dañuy daje ngir sama jëmm ñooñu faw dama leen di sopp ñi nga xam ne dañuy siyaarante ngir sama jëmm faw dañ dama leen di sopp ñi nga xam ne dañuy jokkalante ay teraanga ngir sama jëmm faw dama leen di sopp ñi nga xam ne ñoo bëggante nag te ànd ngir yàlla ak ak sama jëmm nee na ñoo ñit faw dama leen di sopp nga xam ne wajabat mahabbati lay wax suñu borom dara waralu ko dara waru ko waaye daa waral ak cofeelam ak bëgg gu muy bëgg gaañoo ñi te loolu lépp nag daje na ci biir dayra kon soññe bi foofu lay jëm mooy nun ñëpp dañ gën a fonkaat eh, dayre bi bokk ci te bokk ci yëngu bi itam bu ko defee fuñ la féetale rek xamal ne foofee liggéey bi buñ la féetalee cig wet bul sikk ne maanaam ña ca des la ñuy defit luñ mën a def lu bari bari da nga ca am ndax benn liggéey la boo xam ne bu sottee ñëpp lañ koy fayandoo kenn ku ne ci ci biir mbooloo mi kon loolu moo ci jiitu léegi kenn ku ne ci nun kon war nay gën a bàyyiwaat xel adduna jiinu toll nii day ju lëndëm te bari ay pakk bari yuy gàllankoore bari yuy fabe fi nit ki dana baax sax di góorgóorlu waaye léeg yu bari day day yàqu ci waxtoom te du ko yëg man day yàq waxtoom di ko sànq ci lu amul njariñ am na ñoo xam ne sax dañ góorgóorlu bay def lu baax waaye lu baax la ngir mu sell ngir yàlla nangu ko yàlla rek rek tax léeg day jafe te lépp loo xam ne yàlla kese taxul loole suñu boroom du ko nangu Sëñ Tuubaa daana dénkaane ba tàyyi ne waxris alal ixlaasi wal ixfaa'i ne li ngay def na nga koy sellal dayob sellal waaye nanga koy nëbbu itam ba bu ko kenn xam ndax dafa wax ne is jullu ma baana lahum fala yaksuru nafuhu lu bari ci li nit ñi xam njariñam du bari lool soloom du bari lool la rëy fa sun borom mooy li nga xam ne da nga ko def sa digg ak sa borom yow kese waaye loolu nag bu ñu ko waxee jaamu yàlla yi naafile yi ak yenn askar ya tax ñu koy wax waaye yi nga xam ne ko war def ci mbooloo mi yooyu taxul ñuy wax sellal moo dégg murit mën nañ ne sëñ mët la mu jëf dagana ca irwaawu nadim wax na ne boo ma doon laaj lan mooy ak murit dama la koy gàttalal ci menn mbir mais bu ma laajoon lan la sëñ bi doon woote nee na mën naa la ko tënkal ci ni mooy sellal mooy lépp looy def walla nga koy yëngu walla nga koy jëf walla nga koy wax na yàlla képp tax bul def ngir ñu gis la walla ngir kenn xam ko ku ma yàlla de ko seeral sunu borom te yàlla rekk tax ngay def nee sellal nee na moo di ak murit loolu dëppoo naag la sëñ Basiru nettali woon te wax ne sëñ bi daa mas a yeble ca daara ja ku ñuy wax sëñ Abdullahi Jaw yabal ko Daaru Salaam ne ko boo demee waxal mbooloo ma ne leen koo fi xam ne yàlla koo ci xam ne adduna yitteem na dem bàyyil ma fi daara ji koo fi xam ne alaxira moo yitteem na dem bàyyil ma fi daara koo xam ne adduna ak alaxira it mu dem bàyyil ma fi daara ji koo xam ne yàlla képp nag moo yitteem mu toog xaw murit mooy koo xam ne yàlla rek lay dàkk di sàkku ngërëmam ci lépp li muy def ci jaamu yàlla itam defu ko ngir bëgg lenn lu may rek da koy def ngir ne ndigalul yàlla la ëllëg bu ñu demee nag lu ko ca yàlla faye mu sante ko ko kon eh, jamono ji ak fi mu toll aajana kenn ku ne léeg nga settantalaat sa bopp taxawaat ak sa bopp fexe ba yëngu bi lu mu bari bari nga bañ a waru bañ a nax sa bopp alxuraankat am na ci aay yoo xam ni lu tiitul la mooy jëmm yoo xam ne dañuy dem yowmal qiyaam yóbbaale fa jëf yu bari sunu boroom ne leen jëf yi moo pënd bee ñoo yem amul benn xiima dañ koy sànni ci àll ba ndax boobu ba ngeen koy jëf yàlla daa taxut mooy ñooñu mooy al axsarina amalan qul hal unabbiukum bil axsarina amalan alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaa lépp looy wut xamal ne sellal la ca gën a gaaw fi ne nit ki sellal mboolem sikk yu bari ak ak njabar sax fi ne du ko mën a jàpp ki nga xam daa am pas-pas bu sell xam ne yàlla képp mooy jariñ mooy lor la sëñ boo waxoon ad durru wa nafu min arrahmaani laysa min albidaani wa sudaani loolu nga gëm ko te mu wér ci yow nga sukkandiku suñu borom ci lépp kuy dox doxin woowu fi mu ne dara du mën a jeexital ci moom moom la sëñ bi daa wax ne laysa yakunu fi jamiil alamin muassirun fi asarin ma daa amul keneen ku mën a jeexital ci kaw suuf ku mën a yëngal dara ci loolu ndigalul yàlla lan yusibana illa ma kataba lana dafa am lu ñuy nett li yaakaar naa mi ngi ci téere xadis yi wala boog imaam al Ghazali gis naa mu nett li ko benn waay boo xam ni te doon ab jaamukatub yàlla benn bis nag dëkk bi mu dëkk am xërëm bu mag buñ fa tabax am ñu ko fa jaamu waa ji ba mu ko déggee mu am lu ko metti lool jël mu daal jël aw sémmiñam ne damay dama faw xërëm bi faw dama koy dama koy màbb xërëm ci dëkk bi loolu du ma ko seetaan mukk <laughs> jël sémmiñ bi wut wuti xërëm ba nee bi mu wutee xërëm bi mu ne ba ci yoon wa iblis kar ko seytaane nee ne ko xërëm bi doo ko màbb mukk ndax ñii dañoo nekk ci seen diine ak lañuy ñuy jaam yow nga nekk séefu bopp doo fa mu doo ko màbb mukk nee na mu ne ko faaw mu màbb ko nee na ñu songoo ñoom ñaar mu jël iblis ne ko cas dóor teg ko ci suuf daal di nar a way iblis dab ko xam ne waa ji moo ko ëpp doole mu ne ko léegi dama bëgg nu waxtaan léegi ginnaaw gaañ yow boo seen xërëm bi boo ko boo ko boo ko mabbee du la dikk dara te boo ko fa bàyyee am na loo xam ni mën naa la koy defal mooy bis bu set sa ngeganaay boo koy yëkkatee rek dinaa la ci tegal ñaari diinaar wala ñett bu doon jamono ji ma ne dinaa tegal fanweeri junni waa ji ne ko waaw ah, wax nga dëgg de ginnaaw xëram bi moom <laughs> man <laughs> ah, dikku ma dara léegi naa ko bàyyi léegi yow bis seddee ma tegal ki nee na iblis tam léegi moom noonu am bis ba ca topp mu yëkkati ngeganaay teg ci yëkkati fekk fekk ci fanweeri junni yi mu jël ko lijjanti ay soxlaam lijjanti dégg nga ay bis ba ca toppaat mu yëkkatiwaat fekk ko ñetteelu bis ba nag mu yëkkati fekku fi dara <laughs> mu jëlaat semiñ wi <laughs> mu jël semiñ wi ne faw xërëm bi dama ko dama ko koy màbbu ne ne ba ci yoon wi iblis feeñuwaat ko ne ko xërëm bi moom sëñ bi bàyyil ko fi gaañi <laughs> mu ne ko faw mu màbbu ko ñu daal di songoo nee na iblis ko ba ci kaw teg ko ci suuf moom waaji waa ji mel ne xottu gerte ci ci loxoom rek waa ji laaj ko waaw léegi lu tax bu njëkk bañ bañ songoo ma daaneel la te yoon wi nga daan ma ne Iblis ne ko bu njëkk ba ngay ba ngay jóg booba yàllaa tax moo tax doo doole suñu borom ak leeru suñu borom booba nga loon boobu mënuma ci yow dara waaye tey bi ngay jóg nii sa sa bopp tax xam nga ak sa alal ji <laughs> adduna tax xam nga yàlla taxut mi moo tax kii jëf kii jëf ngir yàlla dafa am ruuxaaniya bi mu àndal dafa am ruuxaaniya bi ànd ak moom ci jëf ak ci wax foofu xawma sañ sañ sañ sañ sañ sañ Lamin waa ngi guddalam déet waaye lu am solo mooy mooy li gën a gaaw ci mbir yi li gën a gaaw ci mbir yi ci am yàlla ak am sëriñ bi ak am yónnante ba sallallahu alayhi wa sallam mooy jikko ju rafet fii nit ki mën na jëf lu bari boole kook maanaam jëfe yóbbu ko ci mu yëg boppam nit ki mën na dëkk di jaamu yàlla di woor bëccëg yi di naafila guddi yi di tudd yàlla waxtu wu ne waaye loolu yóbbu ko ci mu yëg boppam yëg ne moo gën nit ñi li muy defit nit ñi defuñu ko tax na du seen moroom te loolu boo ko yëgee loo mës a jëfit yàqu na ndax yonte bi moo waxoon ne laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu darratin min kibr àjjana boo amee dara ci yëg sa bopp doo fa dugg moom maanaam kii dara ci boppam Sëñ Tuubaa dara wax ne kooku seytaane koy wommat ak fu mën a nekk dara wax ne da ngeen moytoo yëg seen bopp ndax bu ngeen yëgee ndax ku yëg boppam yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane wommat ko wal iyaazu billahi taala loolu nag jikko mooy ñëw foofu jikko ju rafet maa nattukaay bi dëgg dëgg jikko la yonent bi li tax muy ngën ji mbindéef daa gën ñëpp jikko daa gën ñëpp jikko moo tax suñu boroom tagg ko ci wa innaka la ala xuluqin azimin sëriñ bu mag bi itam si ahmadou bamba radiyallahu anhu li tax mu fawqa ñëpp daaraw ñëpp ci jikko gën a rafet ñëpp jikko boroom daarul moxti daana wax ne sëriñ bi de wilaaya gi ak xarbaaxe gi ak karaama gi lu wér la waaye bari na ñoo xam ne li ko boole ñoom jikko ma ba tax na jikko mooy maye yàlla fene maanaam yàlla boo ko amee dëgg boo ko bëggee am dëgg-dëgg defaral sa jikko mu gën a rafet lu sa gën jikko gën a rafet nga gën a jege rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonent bi moo wax ne aqrabu naasi minni majlisan ahasinuhum axlaaqan aw kama qaala alayhi salatu wasalaam maanaam may gën a jege ëllëg yowmal mooy ki ma ki ki gën rafet jikko lu sa jikko gën a rafet nga gën a jege melaw yonente ba ak melaw sëriñ bu mag ba waaye lu sa gër jikko jikko jikko gën a ñaaw nag nga gën a sori yonente ba di gën a sori sëriñ bi ci melaw te ñooñu loo leen gën a sori di gën a sori yàlla kon gàttal gi mooy rekk kenn ku ne ci nun waxtu wu ne war ngay bàyyiwaat xel sa bopp rawatina ñëpp xëy na ñëpp am jafe-jafe ci àdduna bii nu ne moom waaye yéen ñi ne ci biir tubaab yi nga xam ne tubaab yi xam nga moom lu bari dañ koo moytuwut moo tax yéen moom moom faw ngeen góor góorlu lu ko moy rek ni ma ko waxee barki maa maanaam ku fi ñëw te bokkoo ci biir daayira bi ci misaal mën ngaa seey ci biir tubaab yi te tubaab yi ku seey ci ñoom <laughs> da nga am jafe-jafe ëllëg moom ndax tubaab yi lii ñu nekke jàmbaar lañ nag moom ñu baax lañ te bëgg lu baax xëy na waaye waaye waaye waaye tubaab ëpp naa seey ci ñoom seey ci sëñ tubaab moo moo ëpp moo gën fuuf seey ci leneen lu may moom dayre bi nag boo fii ñëw te bokk ci te sellal te yàlla rek tax li ngay jëf te yàlla rek a tax nekk ca bopp ba ak nekk ci mujj gi yem ci yow loolu boo ci nekkee bu yàggee danga jëkkee gis ne yaa ngi ci biir sëñ bi te eh, say nga ci moom te doo ko yëg dayre yi ni ma ko waxee barki dem rek fële ca bis Allemagne da lay fàttali sëñ Tuubaa fàttali sëñ ku ci ñëw du fàtte waa a Tuubaa ni ko sëñ Moussa ko waxe <laughs> ku fi ñëw moom la sëñ Moussa waxoon say bët dana ne ko jàkk loolu nag foo koy amee te itam dana tax nga des di di ka doonoon fi ne saal bi ku fi ñëwoon te xamut fun ne du man day day jàpp ne noo nga Touba <laughs> ndax saal bi ci Touba la bokk xam nga ak doonte dëkk bi nag feneen la ba tax na kon li am solo mooy jege mbooloo mi bañ a teqalikook ñoom tey farlu ci sa diine sa kem kattan kon sëñ sëñ Lamin mel na loolu moo doon soññe bi <laughs> nu taxu foofu ba <laughs> ah, lu ci lu ci daldi kon ah, alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin ah, kàddu yi de tënku na waaye matale na matale na waaw daal bëgguñ ci teg dara dañuy bañ dañ koy dañ koy bañ a kooj dañ koy bañ waaw moo duñ ci teg dara leer na nañ yaakaar naa ne bokk yi dégg nañ ko itam mu daal dañuy sant rek bégg nañ lool lool ci sa tànk yi moom tey ñaan bañ a nekk tànk yu mujj bu soobee yàlla moom xam naa ne yeneen yoon yu gën a yaatu bu soobee yàlla fekk ñu gën ko waaj moom moom moom dina dina yéeme incha allah kon daal noo ngi sant bu baax a baax a baax ci soññe yi yàlla na suñu borom ak defal ak dégg akuk topp suñu borom defal nu ak dégg akuk topp euh, am na laaj yu fi ñëw xaw naa bari euh, waaye ñu jéem am na laaj yoo xam ne yaakaar naa mënees na leen a boole am na laaj yu jëm ci wédul maaxuus xam naa dañ leen mu dañ koy mujjee yooyu yu jëm ci wédul maaxuus dañ koy mujjee bu ko defee sëñ bi defaale ci ak soññee ak noonu ñu ko waxee woon sànq ci niñ bëgg a doxalee programme bi euh, am na ay laaj yu jëwriñ laajoon loolu ñu te mën a kii <laughs> xam naa kon ma jotalil kooku laaja bi jëriñ laaj la doon na laaj lu jëm ci wàllu weer wi loolu daanaka at mu ne ñu ci euh, wax ak waxaat li jëm ci wàllu weer wi ak séntu weer ak nun lan moo war a nekk sunu doxiin ndax am na ñoo xam ne xëy na dañuy ànd ak fii ñi ànd ak uh, li ëpp ci waa réew mi am ñoo xam ne xëy na ñu ngi fii waaye dañuy ànd ak ñi nga xam ne dañuy séenu am ñoo xam ne dañuy ànd ak waa Touba loolu daal lan moo ci taxawaay bu weer wi daal ci yoolu asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi noo ngi jéggulu bu baax euh, réew mi ñu nekk dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne naar yi ak nun ñi bu ñuy séentu weer wi ñoom léeg-léeg dañuy dépendre ci seenum ci ñeneen ñoo xam ne du woon fii ci réew mi nuy ndax nun ñi nekk fii ti mënuñoo dépendre ci fu demee ne senegal loolu mooy question bi ndax bu ñu séentoo weer yi ba gis ko fii moom kenn amatul droit ci dara ndax faw nga def ko waaye nag bu fekkee nag dañoo dem bay tëdd ñu ne ñaa gis nañ ko dépendre ci ñeneen réew ci yeneen réew ndax nu na tim amuñu dépendre ci ci ci feneen waa ci Tuubaa waaw ma nga kon baax na jërëjëf waaw kon Baablaay kan ay jubam waaw waaw ba def man danaa ko wax ñaari danaa danaa ko wax ci kàllaame yu gàtt rek gannaaw bi nuyoo ñépp maanaam nun murit yi fii ci Marseille mën nañ ne sax fi la mbir mi soq ko waaye yaakaar nañ koo def ba si fii di ko dundal euh, danoo am commission boo xam ne dañuy séentu weer bi di xam bis bi muy xëy te xam bis bi muy am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent di ko séentu ah, di ko topp ba bokk kook juróom-ñaari réew ci Europe mooy Espagne France eh, Angleterre Allemagne Italie Belgique eh, am na yeneen ñaari pays yu fetti ne la dama koy fàtte waaye juróom-ñaar bu juróom-ñett mat nañ ko nga xam ne dañ koy séenoondoo benn bis waaw Hollande ci la bokk dañ koy séendoonoo benn bis buñ ko séenoo gis ko ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu xam ne weer wi ci ñaar fukk ak juróom-ñeent la nekk suñ ko séenoo gisuñu ko nu jàpp ne weer wi dafa kaamil noonu leen koy defee fii léegi nag ñu am ci benn référence référence boobu mooy nun buñ ko séenoo ci ñaar ak juróom euh, buñ ko séenoo ci ñaar fukk ak te gisuñu ko doonte Sénégal dañ koo gis ñun suñ calendrier bi fii duñ ko soppi ndax teguñu ko bët waaw léegi nag foofu la problème bi nekk waaw foofu la problème principal bi nekk ndax su booba boo da ngay da nag da ngay di gis ñun nag léegi kon nan daal di dellu ci Sénégal woore ca wala ñu woree ca loolu moo am mooy problème bi fii bokkul nag ak ñi nga xamante ne bii moom séenuwuñu weer xamuñu ci dara bu naar yi waree ñu war bu ñu waree ñu war bu ñu tabaskee ñu tabaski lu ñu def ñu ànd ko ak ñoom ñoom seen nekkul ci regarder bu ñu koy xool weer ñoom topp ñu ni ñoom am na fii ci murit yi fii topp ñu ni ñoom ñoom seen yoonu bopp lañ jaar ci naar yi lañ àndal ci loolu waaye nag commission bi moom mi ngi dox tout territoire yooyu ma la yépp ñu ngi fiy dox moom yàlla dimbali nañu nag ba am na fi ay at yoo xam ne fii sunu calendrier boobu nga xam ne noonu dañuy xool ci ñaar fukki juróom-ñeent di xool di ko gis wala nuy continuer ci loolu toujours nooy am dëgg am na fi ay at yu bari yoo xam ne nooy am dëgg ñoom ñu wari ci Arabie Saoudite ñu dem ba ca biir Arabie Saoudite ne fay leen man su ma ne ne man samay nit damay leen di kafaaral ndax li ma gisoon du weer léegi nit ñi fii ñoom duñ nangoo fay duñ nangoo kafaar loolu de moom lañ fi gis noonu nag noo ngeeg sunu commission commission bi moom jógu fi ku ñu wax Sidi Dieng fee ca Lyon moo ko jiit am na ci nag sa mbokk yi ñu ko laajoon fee ca Sénégal bañ ñu nee na euh, damay fàtte seen tur mm, euh, kenn ki daru muti ko la dëkk mu ne yéen France bu ngeen ko gisee wala Espagne wala France wala Italie bala benn réew bu ngeen ko gis ci côté boobu rek yéen ñëpp mën ngeen a woor ci kooku mën ngeen caa wore itam ndax foofu benn benn benn benn benn kii la yéen a bokk code linéaire bi ba tax ñuy wéy ci loolu duñ gis weer yu fii mukkit nag fii benn yoon mosuñu koo gis fii fii ci Sénégal fii ci Marseille gii wala toute Europe te Sénégal gisu ko loolu moom mënta am bu Amérique lees jamono jël lëndam rek waaye ñoo doon koy gis mbir moomu daal lan am fii mu xaw jafe loolu lijjanti <laughs> waaw waaw ah, xam naa dañu jox sëñ bi tontu rek damay ragal nag uh, biru weer bi ñu ko toppee yaakaar naa mën nañ ci mën naa jeexal waxtaan wi waaye ñu jox sëñ bi topp rek ñu jàll ci yeneen ñeneen laaj bisimilah waaw ah, xam naa sëñ bi maa ngi jégalu li ci dolli kuwaat rek mooy suñ xaadim leeral na benn côté bi Baye laay leeral na benn côté bi kon mu des beneen côté bi ci des beneen côté bi ci des mooy suñ mbokki jullit yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ndool ci dëkk bi léegi nag ñoom ci bu jëkk daanañ nañ ak ñoom di woor ak a wori ak di xool ci ñoom léegi nag commission bi ñuy wax ak doxin yi ñu am biñ koy am boobu dafa am at moo xam ne annoncé nañ ne ñoom bis sàngam lañuy ñuy woor lu mat ñaari weer te weer wa ñëwagut dem nañ it ci biir kori nangami fan ñu joxe ne bi sàngam la ñuy wori te ba bés ba ñëwee ci la ñuy wori ñu xam ne kon ñoom kat sukkandikootuñ ci weer dañuy sukkandiku ci ab dat bu ñuy jàpp ndax léeg-léeg itam man mii di wax ak yow grande moske ba nekk Paris dana ma yónnee ne suba daañu wari te quatre ci ngoon lay doon jant soogut mu ne suba daañu wari loolu itam xaw naa doy waar léegi nag nu bëgg a xam nun nag ndax bu fekkee li ëpp ci nit ñi itam ñi ngi ci dëkk bi di jëm ci côté boobu di ci woor ak a wari ten ànd ak ñoom di ay jullit te ñoom loolu la def ñun dañ leen a fara fekk ci loolu wala danoo war a yem ci di xool weer di ko gis di ci woor di ci wori wala déet laaj bi foofu la ne waaw bu loolu jàllee itam nun ndax am nañu droit bu ñu gisul lu nu doy fii nu wéeru ji ci Sénégal wala danoo war a wut fii li nu fi sant lañ ca war a dox ba gis ca lu nu doyee di wala mënuñu ca amuñu ca kàttan ñu doog a dellu Tuuba waaw kon maa ngi jël Eh, jërë ngeen jëf sëñ Modou sëñ Xaadim ak sëñ Abdullahi eh, xam nga mbirum weer moom dafa am loo xam ni moo indi jafe-jafe bi mooy boroom xam-xam yi dañ ci am ñaari taxawaay li koy indi mooy li ñuy wax ixtilaaful mataalia yi ixtilaaful mooy gisuwaay yi ak jaww yi ak gox yi ndax ñépp ñoo bokk genn gis wala bokkuñu genn gis am ñu ne ñépp kat ñoo bokk benn bis ndax bisub altine bi wala bisub euh, ajuma bi mooy ajuma ci àdduna sépp ak lu waxtu wi soppiku soppiku ak luñ ci wuute wuute am ñu ne kat mbir mi demewut noonu maanaam gox bu ne ak seen gisub bopp ak seen waxtu bopp loolu moo indi waxtu julli yi ñu wuute ci nga xam ne noonu dañuy julli fii tey gee te am na bërëb yoo xam ne suba la ñuy waaj julli fi ne Arabie Saoudite boo demee ndax julliwuñ ñoom suba ba noppi waaw mi ngoog nga xam ne kon li wuutale julli yi moo wuutale moo nu wuutale waat moo nu mën a wuutale ci koor leneen maanaam ixtilaaful mataali foofu la mbir mi ne loolu nag li ëpp ci borom xam-xam yi rawatina suñu borom xam yoon wi ak kilifa yu murid yi moom dañoo jàpp gis-gis bu mujj bi mooy ne euh, gox yi gox bu ne ak sa gisug bopp te loolu am nañ ci cëslaay mooy xadis sayidna Kurayb xadisu Kurayb boobee nga xam ne dafa jóge woon saam ñëw ci Abdullah sayidna Abdullah ibnu Abbas mu laaj ko sayidna Abdullah Abbas laaj ko mu ne ko ajjuma de lañ gis weer wa ca saam Muawiya woor digal ñëpp ñu woor Seydina Abdul Aziz ne ko nun de ca bis ba ca topp lan ko gis fii muy gaaw bi ci leen woor te itam lin def duñ ko soppi ndax yónnte bi lii lanu digaloon loolu ñu dégg ci ne kon kat kenn ku ne ak sa gisug bopp léegi nag kenn ku ne ak sa gisug bopp moom loolu moom mooy mooy mooy mooy li ñu war a doxal mooy wuroo nekk fii ni demee ànd ak waa waa Sénégal donte nag ñu bare bari moom ñi nga gis ñuy def leneen ci seen wet ñoom dañoo ànd ak Arabie Saoudite dañu àndal ngir jàpp ne matalian yëpp benn la gisuwaay yëpp benn la gox yëpp benn la waaye nii ko sëñ bi waxee Arabie Saoudite googu it njuumte dafay am fi ne am na calendrier yu ñu génne ci ginnaaw yoo xam ne dañoo wax ne at yu bari yoo xam ne dañoo dañoo gis ne ndekete dañ caa juumoon léeg-léeg sax bu at mi jàllee danañ yëgle ne juumoon nañ nañ fay bis comme ni ko sëñ bi waxee waaye loolu ñëpp duñ ko yëg ba tax na nii ngeen ni gën a mucc mooy nu jàpp ne gox bu ne akub gisam fii nu fii ngeen ne ci Europe ak seen gisug bopp ñi ci bokk ay gox ndax Europe it fi ne du ñëpp bokk benn gox feneen waaye ñi ci bokk ay gox réew mu ne mën naa jàpp masalan gisug boppam buñ gisee réew mépp woor buñ gisee ca mujj koor ga réew réew mi bu wori ndax loolu la yonent bi digaloon suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilul iddata salaasina yowman aw kama qaala alayhi salaatu nag mu am lu ci dolliku mooy li ñuy wax ilmul fëlëg bukkut ak ilmu nujoom ilmu nujoom la ñuy ko ci sukkandiku waaye ilmu fëlëg ab xam-xam la bu nose te te te sew te wér nga xam ne weer wi dañuy xam ne waxtu sàngam dana juddu wala judduwut dana nekk ci jaww ji wala du ci ne bu ci nekkee ndax bëtub kese mën na koo gis wala du ko gis ñaata minute la fi def wala ñaata seconde lay def ci jaww ji bu njëkk dégg jant bi di di di di di di di suux wala bu suuxee ba noppi ñaata seconde la fi def xam nga loolu dañ koy mën a xam nga xam dañ xam ba xam lii bëtub kese mën na ko gis wala déet moo tax nag borom xam-xam yépp maanaam di sukkandikoo ilmu fëlëg boobu yi nga xam dañ koy sukkandikoo ngir xam ba xam jaww ji weer waa nga fi mu déet bu fi nekkee ñu ne nañ séentu nga xam ne bëtu bët moom lañ koy séentoo ndax ndigalul yonte ba suumoo li ru'yatihi waaye buñ xamee ci ilmul fëlëg ne tey jii weer wi du ne ci jaww ji wala bu ci ne ay seconde la ci ne yoo xam ni mook timis jee ànd mënoo wax a wax ba gis ko ci bëtu kese bis boobu moom da ngay bañ a séentu dañ dul séentum nag kon gisu bët ba léegi ca ne la yonente ba digle woon sallallahu alayhi wa léegi nag lii sëñ xaadim njëkk a wax nga xam ne moom daa am ñoo xam ne ñu bëgg a ànd ak suñ mbokki naar yi nga xam ne ñoom jàpp na ne Arabie Saoudite lañuy àndal moom mu jàpp ne bala ngay ànd ak Arabie Saoudite yow man nga ànd ak waxtu bayit <laughs> ci wet gi xam nga loolu moom lu yanu maanaam la li mu wax nii wér wér la boo demee bay ànd ak keneen waaye nag li gën a mucc mooy li sëñ lay wax nga xam ne mooy am seen commission bopp loolu ginnaaw taxaw na alhamdulilah commission boobu jàpp naa ne mën ngeen cee sukkandiku fu ñu nee gis nañ ginnaaw ñoom dañuy séentu fu ñu nee gis nañ ngeen ànd ak ñoom woor fu ñu nee gisunu ngeen ànd ak ñoom woore mu am nag lu ci dolli ko mooy li sëñ li sëñ li sëñ Modou wax moom loolu lu ci bàyyi xel lu ci mat bàyyi xel la mooy bennoog jullit ñi itam réew mépp bokk genn koor genn woor yi genn koor yi wala genn tabaski loolu daa gën a rafet loolu it bu ngeen ko defeet yéen a ngi ci ak njub ndax yonent bi wax na ci xadis bu wér ne bis bu jullit ñi wori donte boobu bis boobu bokkut ak ba ñu war a wori boo ci ànd ñoom am ma ma maanaam yaa ngi ci njub bisu tabaski noonu wax ne iid mooy bis bi jullit ñi wori rek wala bis bi ñu def tabaski bu ngeen gisee ne maanaam ñàkk ànd ak mbokk jullit yooyu mën naa indi ak ay ay ay xajam-xajam loolu moom lu ngeen waxtaan la seen biir commission bi daal ginnaaw taxaw na yéen mooy seen sukkandikukaay ci li ma jàpp ñoom nañuy séentu itam te bàyyi xel itam Europe yaatu na xëy na wax na juróom-ñaari réew waaye bu fekkee ñoom ñëpp ñoo bokk genn gox genn gisi be nga xam ne genn gis matala li ñuy wax matala ñoo ko bokk loolu boo mën nañoo mën mën nañoo ànd moom di ko xool fu ñu ko xoolee ñëpp ànd ci wori teewul nag ñii nga wax ne dañuy teel a wax ne gis nañ ko loolu dama yaakaar ne ci ilmu fëlëg bi lañ sukkandiku ndax ilmu fëlëg moom lu ñu natt la lu wér la ab xam-xam la bokkut ak ilmu nujum ilmu nujum moom la ñuy aaye ko ci sukkandiku ci laa bi mu najjimin loolu la loolu la borom cheikh Muxtasar Cheikh Xalil wax jëmmi ilmu falak moom bokkut ak loolu mu falak xam-xam la dégg nga boo xam dañuy xam doxiinu weer wi ak ak fi mu toll ak ndax dana judd ci jaww ji mooy dana fe dana nekk ci jaww ji ginnaaw bu jant bi soo wala du fi ne dañ koy natt te boo gisee yeneen yu baree bari sukkandiku nañ ca xam nga ci ci ci yooyu waaw fi ne julli gaa yu bare bari dégguñu nodd xam nga fii seen dëkk bi wala insu bi lay dara kenn du dégg nodd <laughs> yàlla yàlla dafa den taw fexe bañ fii man di nodd ca kaw waaye gaa yi ay ay téléphone lañu yor yoo xam ni dañuy wax ne waxtu sàngam mooy waxtu julli bi wax te téléphone boobu nag xam nga ay natt la yoo xam ni sori wut ak loolu nga xam ne ci sat liggéey yooyu dañuy natt ba xam bërëb bi ak waxtu wi ak julli ndax jot naa jotut ñu sukkandikoo ci ni ñu ci yooyu nag lañ mën a sukkandikoo ci ilmu fëlëg ci misaal ngir xam weer wi dana feeñ wala feeñut boo tax gàttal gi daal mooy ñu sukkandiku ci commission bi nga xam ne murid yee ko taxawal loolu moo jiitu bu ngeen demee ba gis na nag ñàkk ànd ak mbokki jullit yi moom mën naa indi xajam-xajam wala euh, maanaam dana ñaawal image jullit ñi loolu moom sukk ànd ak ñoom wëññiwu dara te boo am ngeen bu dee maanaam li yéen a ngi ci njub la ngeen def baax na ndax loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mi ngoog jërëjëf jërëjëf yaakaar naa leer nañ xam naa ñu Euh, toftal ci laaj bi ci topp ba tey lu jëm ci wàllu sëy yi bari nañu fi ñëw nga xam ne dañuy bëgg ñu leen di fasal ay sëy la moo war a nekk doxinu daara ji ak loo xam ne war na ko wóorlu daal war na ko wóorlu ci diggante ñaar ñooñu ci ay condition yu mat ak xool ko daal ba bala ñoo ne dañuy dañuy takk sëy ndax léeg nga gis ci ay cas yu xaw a doy waar euh, xëy na lépp ki mënu koo leeral waaye yaakaar naa dina xam li liñ liñ bëgg bëgga wax léegi nga gis yu yu doy war daal yaa nga war a gëstu balaa ngay fasub sëy daal waaw loolu daal xëy na mooy laaj waaw jërëjëf sëy sëy moom ngir ñu fas ab diggante diggante góor ak jigéen am na loo xam ne mat na caa leerlu moom li ngeen wax lu am solo la mooy bala ngaa fas yow mi fas war ngaa leerlu ay mbir mooy mi kii ngay fas na nekk maanaam lay nekk góor ak jigéen buñ nekk ñaari góor buñ nekk ñaari jigéen ndax sëy du dox ci ñaari góor diggante ñaari góor dox ci diggante ñaari jigéen góor ak jigéen lay dox maanaam bu mu nekk koo xam ne dañ koo forse xupp ko tiital ko ba mu dugg ci nga xam ne tey moom dañ ne ko boo ko deful ñu rey la masalan loolu mën naa gëstu ba nga xam ne kii nekkul ku ñu ku ñu ku ñu ku forcé loolu mat loolu loolu ca la bokk jigéen gi itam jigéen gi itam bu xaram góor gi xam nga am na ñoo xam ni mënoo leen a takk ñooñu ay xeet lañ am na ñoo xam ni aw askan a tax mënoo leen a takk du mel ne sa ndeyi bopp walla sa doomi bopp walla sa bàjjen walla sa ndey ju ndaw dégg nga wala sa mbokk mu jigéen dégg nga xurrimat aleykum ummahatukum wala sa doom ju jigéen dégg nga sa bàjjen wax naa ko sa ndey ju ndaw wa banaatul axi sa doomi mbokk mi nga bokkal ndey ak baay wala mi nga bokkal baay kepp wala mi nga bokkal ndey kese wala sa doomi rakk ju jigéen mbaa sa mag ju jigéen yoo bokkal ñu mel noonu ñooñu sëñoo cee takk kenn moom moo tax lañ sa lañ war nañoo laaj jigéen ji lu mu doon ci yow am na ñoo xam ni tey gorom le moo tax mënoo leen a takk bu dee tey maanaam sa soxna ndeyam kooku sañoo takk sañoo ko takk xam nga walla sa soxna si nga xam ne ànd ngeen boo jot wéet ak moom doomam ju jigéen joo xam ne bàyyi wut ci yow kooku ba tey sañoo ko takk xam nga ak tey sa soxna sa wajur wu góor sañoo ko takk mi ngoog ak mboolem sëy boo xam ne sëy bu yàqu la rek dañuy wax sëy bu yàqu mel na tey euh, ab juróomeel bu fekkee góor gi daa yoral ñeent suñoo koo takkalaat keneen ndax ka ka ka ñuy bëgg a fasaat kooku fasuwut dégg nga walla mu bëgg a boole nit ak bàjjenam ci misaal bu fekkee daa yor daa bëgg a boole nit ak bàjjenam ba tey loolu fasuwut walla nit ak ndeyam ju ndaw wa bay na bayna luxteeni walla nit ak kum bokkal ndey ak baay wala ku amoon boroom kër ba noppi yëpp mën na ci man man na cee laaj ndax jigéen ji am na ku ko yor bu fekkee am na sëy boo xam ne ma nga ci te tasagut sañoo maanaam keneen sañu ko takk mënta mënta fasu ci moom aslan walla itam bu dul ab jullitit na nekk rek ci diine Seydina Isa mooy mooy mooy ab chrétien wala ab juif bu jigéen léegi waaye koo xam ne ab musrika la nga xam ne amul diine amul diine nga xam ne wala ñi ci ñi nga xam ne gëmuñu dara mu gëmuñu jenn diine ñi kenn suñu te takk ci ñoom waaw ate yi ak communiste yi nga xam ne ñoom daanaka dañoo wedd yàlla ak diine yépp kooku sañu cee takk ak ku bokk ci jeneen diine masalan ab bouddhiste ak yéen demee yooyu yëpp sañu cee takk xam nga xaw ma noonu lañ ko waxee baat tubaab bi nag moom da ngeen ma koy jégal man <laughs> tubaab bi tuubaa la lay lay wax mi ngoog mi ngoog walla koo xam ni tey nit waa ji da ko yoroon ba ba fase ko ñetti yoon yii yëpp nag day am moom yii lu ci ne fi ne nañ cee ne ay nit ñoo ma yu day am ba pare ñu di ko fasaat koo xam ni yor nga ko fase ko ñetti yoon kooku sañoo ko daal di sa sañoo ko fasaat lu may boroom kër dafa dafa dox mi ngoog waaw ak jigéen ju nekk ci idda mi ngoog yooyu daal nga xam ne mooy tax yooyu yooyu daal moom mat naa laaj bala ñuy fas jigéen ju nekk ci idda moom jigéen ju nekk ci idda moom bu fekkee ka ko fase woon ka ko fase woon sañ na koo fay li mooy da ko jëlaat naa la rek xam nga yi ñuy defaat yëpp nga xam ne yooyu du ko jar da ko wax jëlaat naa la rek bu ko mu ñu daal di àndaat waaye keneen moom suñu ko suñu ko suñ suñu ko fasal keneen li fekk idda jox waaw waaw yooyu bokkuñu waaw bu dee idday ku faatu moom xam nga eh, arbaata ashhurin wa du loolu aay ba mooy ñeenti weer fukki fan moom la bu dul dindaa ànd ak ëmb bu nekk ëmb moom da ëmb ba dey day day day day day am doom bu dee loolu mooy id maana jeneen idda jeneen idda ji moom xam nga salaasatu xuru la koo xam ne bokkut ak idday ku faatu dañuy xool bu fekkee daa ëmb bu amee doom rek idda jeena bu fekkee ne ëmbul nag maanaam ñetti laab ñetti laab bu ko amee rek idda ji jeena mooy laab gi nga xam ne ci lañ ko fase bu gisee baax ba laabaat ba gisaat baax rek da maa idda jeex na bu fekkee du kuy gis baax nag ñetti weer lu noonu lañ koy noon lañ koy xayma wallahu taala alam ci doon laaj ndax kii maye ndax déedéet yooyu nag moom de su ko laaj <laughs> yooyu jërëta laaj sëñ bi yooyu du ci dara xam nga maanaam yooyu moom ca fase la aaje mu bañ a nekk ci ci ci di gis baax dégg nga ndax loolu moom pasem pasem bi daal lañ koy tudde waa yooyu it ba tey mat na ci xam yooyu mat na yooyu mat naa xam yooyu yooyu mas na ko laaj moom yooyu moom ba séqu leen dara nga koy wax rek waaye am na waxin yoo xam ni boo ko waxee day day day <laughs> jërëjëf Mbacke xam naa ko dañuy jàll ci yeneen laaj rek kii day daa bëgg nga firil ko baytu yi wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita ku baax kaa ko wax wala takun mufarritan aw mufritan bal istaqim fi sunnatin wa aqsita loolu waxi sëñ mag bi la bu ma jur mag ngi ca masalikul jinaan xanaa sëñ bi daa wax ne maanaam bul ëppal bul yéesal bul ëppal bul yéesal na nga digg doomu te nga boole ci sax ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam boole kooku maandu boole ci biit boobu mat na sëkk ndax ëppal baaxut yéesalit baaxut ba ci jaamu yàlla yi sax fi ne am na ñetti nit ñu mas a ñëw ci yonte bi gëstu gëstu ba xam na muy jaamoo ak li muy def ci bis bi ci ay jaamu yàlla ñoom loola tuuti ci ñoom ñu ne yonent bi kat ginnaaw moom suñ borom moom nee na ko li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min dambika wa maa taaxara buñ ko royee nun danañ sànku ndax nun bokku nag moom kii ne man duutuma amati soxna moom damay damay labbewu <laughs> kii ne man duutuma nelawati guddi guddi yëpp jaayante naa dama koy fanaanee taxaw ma ak di ak def jaam kii ne man eh, ñetteel ba lu waa kii ne damay dëkke koor ma dog waaye ba ko yónente bi dé déggee da wax ne ah yéen kat li ngeen def wuute na ak sama sunna man dinaay woor waaye léeg ma dog dinaay naafila ci guddi gi ak a jaamu yàlla waaye léeg ma tëdd nelaw nit soxna it dinaa ci danaa ci am am naa ci te loolu ku ko defut fa man raxiba an sunnati maanaam loolu ku ko defut day mel ne dangaa ngaa sama sunna te ku sib sama sunna bokkoo ci man fa lay sa minni moo tax kon eh, laaj bi waaw waaw mooy bañ a ëppal bañ a yéesal digg doomu rek te boole kook nag sa mbir yëpp nga fexe ba mu dëppook sunna sunna nag gàttal gi mooy lii nu sëñ bi jàngal rek li sëñ bi nekkoon loolu mooy sunna ndax ñiy wax sunna bari nañ waaye li sëñ bi nekkoon mooy sunna sëñ Tuubaa mooy ki gën a dëppook sunna moo daa wax ne laysat liyal yowma xaajaatun u ammiluha si waqtifaika xafwal qalbi wal badani ni mu roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook moom ci lépp loolu amu ci ndenn ba tax na noonu li nu nekk rek gàttal gi mooy mooy mooy sunna bu dee lu bàyyi ko ci sëñ ba nag sëñ bi jeexale ko nga maandoo ndax nit ñi dañ am na ñoo xam ne dañ nekk ci sunna boole ko xadar nag ju kenn mën mënta dékku wa aqsita mooy nga boole si ak maandu nag mooy mooy lijjanti sa bopp waaye bul def koo gis bëgg koo lijjanti <laughs> ah, ah. Euh, yaakaar naa leer nañ xam naa ñu ñëw ci laaj tasawu fi xëy na <laughs> fiqi waaw ci dee di laaj daa wax ne maanaam diggante xidma ak jàngkatu xasida yi ak euh, wàccaay yi ñuy war a jox sëtu sëriñ si dama xamul lu mu ci jublu xëy bu ci gën wala yu mel noonu noonu daal la ko laajee moom ñett yooyu diggante xidma ak jàng xasida ak oh, xam naa adde yi ñuy jox sëti sëti bi daal <laughs> waaw adde yi joxe dama xamul xaw ma dafa bëgg wax lu ci lu ci lu ci gën wala lu ñu ci war a jiital wala lu ci kii daal waaye noonu la ko da ko bind noonu rek moom laaj ko noonu waaw diggan diggante ñett yooy ah tuuba li abdin muridin sadiqin bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat loolu la bëgg a wax léegi loolu lu ci bëgg moom <laughs> eh. loolu de moom li ci am mooy moom yooyu moom yëpp baax moom xidma xidma mënta ñàkk ci murit xidma mënta ñàkk ci murit murit day def xidma waaw xidma moom mënta ñàkk ci murit hadiya yi itam ci murit la bokk donte sëriñ bi moom am na nu mu ko nosee nag mbirum addiya daana wax ne képp ku am bor bu indi addiya ku am bor rek bul ma indil addiya loolu moom daana ko wax loolu na xaw ma sëriñ si moom arrangé na sëriñ si waaye loolu moom sëriñ bi mag bi daana ko wax addiya itam maanaam ci yow la aju chaque tànn rek du lu ñuy forcer nit wala léegi yow yaa koy bëgg joxe joxe ko du ceegee ne foo nuyoo ab sëriñ da war a joxe dara sëriñ di am solo mooy nga siyaar ko rek ngir yàlla sàkku ci siyaar gi nga koy siyaar barke nemmiku ko dégg nga ndax bëgg gi nga ko bëgg ci sa xol loole moo gën a rëy ci moom addi ji nga koy jox fi ne maanaam cofeel gi nga ko ëmbal ak mbégteem xol mi nga ko ëppal ak yéene ju rafet ji nga ko ëmbal loolu mu ëpp mooy addi ji gën a rëy addi itam yëmut rek nag ci jël addi jël xaalis joxe fi ne jàng su nga xasida gu mën a doon rek ab jaalibatu wala dara def ko addi yi sëñ ba loolu joxe nga addiyee ju rëy rëy boo jàngoon fatiha bii suratul fatiha benn yoon wala juróom-ñaari yoon jox ko addiyee dara ëpp ko solo ci li ñu joxe kon xidma itam moom mooy lépp loo xam ni mën nga ko def te mu jur njariñ te doo ca séentu ak pay mbaa ak cant mbaa ku ko xam mbaa ku ko yëg nga defal ko koo ko mën a defal rek mbindeef yi ku mën a doon rek ci biir mbindeef yi loolu lañuy ñuy tudde xidma loolu nag daa bokk ci murid sëñ bi ñaanoon na wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma ñetteel bi mooy mooy bëgg sëñ bi bëgg sëñ Tuubaa bëgg bëgg sëñ bi nag moom moom loolu moom daa mënta ñàkk ci murid yii moom amul benn boo ci jàpp di bàyyi ba ci des amul bu ci bu ci boo naan moo ci gën morom ja itam yépp ngay jàppandoo rek dangay bëgg sëñ loolu moom moo jiitu moom di def xidma bi te nga xam ne sa alal ji nag sëñ Tuubaa ko moom ndax da ngaa jaayanteeg moom da ko jaay sa bopp inna allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum jaayante dara lu may da jaay sa bopp ak sa alal bu ko dee di ko ci jox addiye loolu yi moom dana maanaam dana yokk sa sa cofeel sa diggante ak moom waaye addiye ni ma ko waxee rek tekkiwut maanaam jël xaalis ni rek joxe alal it du xaalis rek fi ne alal yu baree bari ay xeeti wërsëgit yu baree bari lañ sañ sañ sañ sañ Lamin leer na am na ñaari laaj yoo xam ne yaakaar naa war rees na leen a mën a boole kii dee laaj ndax mën nañoo am sëriñ bi nga am sëriñ bi ci lu dul beru ak ak wéet ak naka lañuy xamee nit ku am sëriñ bi daal nga xam ne am nga sëñ bi daal. am nga sëñ Tuubaa waaw. ndax man ndax mën nañ ko am ko xam naa am ngërëmam wala am am sëñ bi daal xam ne. am sëñ Tuubaa waaw loolu jàpp naa loolu la si jublu daal. wax na dëgg de am sëñ Tuubaa mooy mbir moom la ñëpp yi wër nag loolu ngay wax fi ne. <laughs> moom la ñëpp war moom lenn di laa ca xam mooy sëñ mën Lamine Gaye jëm mooy mu baax ma daana wax ne sëriñ bu mag bi bu amoonu njëg njëg gi mooy bëgg ko loolu daana ko eh, daana ko ndax xam nga sëñ yow moom mënoo ko yokk dara xam nga fi ne loo def ci eh, alal yeeg yëpp xam nga mën moom sëñ Tuubaa dawul laal dawul laal xaalis sax ndeysaan def lenn maanaam ba mu rëy fi fi moom lu may bëgg ko rek <laughs> ndeysaan mi ah, daa wax ne ndax beru ak wéet manees na ko ci amee sëñ bi wala mën nañ am na yeneen yoon daal dul beru ak wéet xam naa mooy tasaw soufiyanke yu njëkk yee rek niñ daan doxin woowu ndax ci noonu rek lañ mën a jaaree daal wala am na yeneen yoon itam nag maanaam beru ak wéet maanaam jubluñ ci waxtu ne nga beru ci àll ba yow képp boo ko dee moom maanaam man ngaa am beneen jafe-jafe bu la dikkal mooy da ngay wut waxtu woo xam ni léeg-léeg nga nga nga tëju ko def yi ngay def yi nga war def ci bis bi ay dul maa xuus ak jàng xasida ak yooyu wutal ko waxtu woo xam ne bu jotee bul seetaan télé bul déglu whatsapp bul maanaam toogal yow képp ci bërëb boo xam ne yow képp fa nga def ko diggante ba ngay ba ngay wéet foofee loolu ak beru la usla la usla jus iya la loolu da ko wutal benn waxtu wala ñaari waxtu yoo xam ne da nga koy def ci bis bi léegi loolu nag bu yàggee sa na sa xol mën nay gën di leer te sa xol lu gën di leer ngay gën a gis dégg nga maanaam maanaam kawtee suñ borom yi suñu borom nga di ko gën a sopp sëñ bi itam di gën a wér ci yow nga di ko gën di bëgg di ko gën di jege rawatina bu fekkee ne askar yi da koy def muy yi nekk ci biir yoon wi loo ko gën a def di gën a bëgg sëñ di gën a gën a bëgg sëñ bi di ko gën a jege itam bu ko dee loolu moom moom moom bu dee ci wet googu moom beru googu mën na laa dimbali waaye beru am na ay ay ay nuñ koy defee an su yooxin waaw waaw beru moom xam nga lu mel ne xalwa nii nit du ci dugal boppam maanaam bu njëkk faw ab sëriñ moo la cay dugal boo jëkkee dugal sa bopp ci xalwa <laughs> man nga fa maanaam ñu bari daanañ dugg danga gis ñu dugg xalwa waaye hôpital lañ la ñu mujjee <laughs> mi ngoog sëñ eh, sëñ Hadi ture moom yeenu dendal ca Kajoor mu baax ma radiyallahu anhu daana wax ne armeel yee nga gis bari na ñu fa tëdd te yàlla moo leen fa yóbbu <laughs> moo tax mbir yooyu dafa am ay xam nga lépp li kulli shay'in usulu usuluhu loolu la Sufyaan koy wax lenn lu amutu yoon amut mag ñi dañ daa wax ne aw bëggiin aw wutiin aw ani aw amin mbir mën daa am nuñ koy wute ak nuñ koy amee doo ñëw rek soobu si mi dugg ci azkar yi tëju sa tëju bopp maanaam seytaane ci moom mën a laa mën a laa mën a laa gàllankoor ci ci te doo ko yëg bismillah <laughs> maanaam bëgg bëgg gi nga wax bëgg gi nga wax léegi ndax mooy bëgg gi ñu xam nii rek wala mooy lii nit yàlla naan xubbu zaat daal xubbu zaat waaw kay bëgg nag moom bëgg moom moom moom lu mat a lu lu lu lu am jafe-jafe la moom ndax léeg lekk dangay jàpp ne sëñ bi nga bëgg fekk sa bopp nga bëgg ci biir sëñ bi xam nga loolu day am loolu nag yéen mën ngeen ci mucc sama galaas gi <laughs> ñoo loolu la ñoo ñu gën mën a dal ndax sëñ bi xam nga dafa am nitu yàlla goo xam ni dafa mas a am ab taalibe boo xam ne da koo def bëkk néeg daanaka fu mu dem ànd ak moom benn bis suñu gane benn bërëb taalibe bi gis doomi kiñ gane si doom ju jigéen ji mu wax ne moom da ko da ko bëgg ni sëñ bi moom sëñ faw ñu fasal ko ko <laughs> sëñ bi ne ko te nga muñ te bay bañ kii mu ne ko déet di kii soxna si mënuma ko ñàkk <laughs> yàlla dogal sëñ bi ba mu ba mu demee ba mënu amul ca pexe mu wax boroom kër gi ne ko léegi sa doom ji kat kii neen da ko bëgg nañ ko ko may waa ji ginnaaw kii moo dib sëriñam mu daat cay ñu fasal ko ko yàlla dogal guddi gi njëkk a wéet ñoom ñaar moom bëkk néeg bi ak ak soxna si soxna si kiris rek daal di ci ci ci néeg bi mu dawee ca néeg ba moom waa ji ñëw fekk sëñ bi fi mu nekkoon daal ne ko soxna sa faatu na sëñ bi ne ko kër gépp tëdd na fi ne kay mën da ngay dellu foofu tëdd fanaan ak moom ba ba ëllëg nu doog ko lijjanti mu ne ko déet néeg bi duma fa duggaat nee na sëñ bi talaata ko dóor ko mu pes tëll ne ko yow da war a seelaat sa bopp maanaam bëggoo ko daa am loo bëggoon ci moom <laughs> xam nga lu bari lu ñu tuddee bëgg maanaam bëgg sa bopp la daa am loo bëgg da da sa bopp nga bëgg ci biir ci biir ki nga jàpp ne moom nga bëgg sëñ Tuubaa nag loolu danañ ci dal ndax sëñ Tuubaa rawatina sunu classe gi <laughs> ni ma koy wax lu bari bari yéen nag am na ci am mboolem ñi jàng xasida itam loolu mën a leen dal noonu ñoo ci bokk ak ñi sant sant bi ak ñi nga xam ne dañuy waxtaan ci moom ak ndax ndax ndax ndax barkeb sëñ Tuubaa bi ci ngay dund loo gën a wax ci sëñ bi nit ñi gën a bëgg sëñ Tuubaa yow ñu gën la bëgg di la jox seen alal ñoom ndax gis ñu sëñ bi yow lañ gis nga di ko dunde nag xam nga loolu maanaam kenn xamul lu mu doon te alal joojo kii boobu bokkut ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daana wax ne àdduna damay dàq di ma dàq di ma dàq ba mujj ne ñu ne ma taxawal nee na bi ma taxawee adduna ñu wër ma ci wet yépp nee na ku bëgg a agsi fi man da ngay jéggi àdduna moom doog agsi fi man loolu nag sama classe gi moo tax bu ñu tuddee mbirum bëgg rek sama damay man damay tiit <laughs> waaye nag bëgg moom mooy bëgg xol gii nii xol nag ci dëgg-dëgg benn genn bëgg ci am mooy yàlla la bëgg ak lu aju ci yàlla maanaam yi ñu tuddee bëgg loolu bëggu bakkan la xam bëgg ay xeet la xubbu nafsi ak ruuxi ak xubb al ilaahi ñett noonu la ko suwenk yi teqale bëggu bakkan gii nag ay xemmem la yoo xam ni la ci ëpp bakkan moom bëggul keneen boppam la bëgg xam nga moom xamul keneen xam nga <laughs> moom boppam rek lay lijjanti moom ndax ndax fi ne tey lu mën a bëgg bu demee ba lam ca bëggoon jeex rek mu yemale ko foofu te bëgg du ko bëgg dëgg dëgg bëgg du soppiku du ko mukk du jeex te day gën di yees di gën di dolliku di gën di màgg waaw mi ngoog <laughs> ndax yàlla ndax yàlla ndax de sëñ sëñ Lamine bu leen ma ñeewante man kay yéen moom maa ngi fi rek kii laaju fiq la man yàq naa mën naa gaaw lool daa wax ne boo boo julli nga bàyyi benn sunna war a sujjóot xabla salaam ba pare fàtte xab la salaam bi naka nga koy réparé yaakaar naa sax xam naa ne benn sunna sax war kenn waru ko si jotal waaye naa bàyyi sëñ bi tontu <laughs> yow kay nga ko sëñ Lamine loolu kay jërut kay jë bismillah bi <laughs> ko maanaam xabla moom moom moom boo ko fàttee danga koy soppi baxda rek mu baxda salaam moom ngay sujjot day soppi ko baxda waaw yaakaar naa loolu leer na Euh, noonu ma ko waxee laaj yi jëm ci wérul maaxuus dañ koy mujjee bu ko defee sëñ bi soññee waale ci am na ay laaj yu bari yu ñëw ci yu jëm ci wérul maaxuus yooyu yëpp dañ koy dajale mujjee ko incha allah euh, daa wax ne ndax jël xasida di ko jàng te amoo si ndigal mën na laa àggale ci ci naka la na mën na laa àggale ci yàlla jàng xasida te ci ndigal daal te amoo ci ndigal waaw mi ngi mel ne ngay alxuraan te amoo ci ndigal rek loolu ndax dana la àggale ci yàlla wala da nga ci am tuyaaba xam nga xasida moom foo ko jàngee am nga dara xasida moom foo ko jàngee am nga dara moom ndax def nga zikr gu rëy te am doole léegi nag ndigal dafa am leneen lum ciy dolli dafa am yeneen i jeexit itam yoo xam ni da ko ci dolli sëñ bi am na foom ko misaale ci ci yaakaar naa silkul jawaahir la wax ne askar yi nga xam ne da nga ci am ndigal yi nga xam ne amoo ci ndigal yooyu boo koy def yaa ngi def zikr rek bi yàlla digle ma mooy uzkurullaha zikran kasiran waaye nag gaa yu baax yi ak nit yàlla yii ñu yii ñuy jànkonte ak yii leen yàlla feexal ci biir mbir yi ak lii ñuy lii ñuy gis maa waxuma gis sax waaye lii ñuy dajal laa ne ci ay teraanga yu leen suñu borom defal ak barke loolu ndigal a koy maye moo tax sëñ bi daa digle ne murit bi lu muy def na ci jiital ndigal laa tafaalu shay'an bi xayri izni fal isnu chartun fi qabuli shani léegi nag sëñ Lamin wala nu wéy <laughs> sëñ Lamin moom moom boo ko xamee ba léegi moom ni nii la de moom waxtu moom du ko yàq <laughs> ndeysaan bismillah bismillah sëñ Lamin bismillah jërëjëf bismillah kon waaw kii daa wax ni mag ñi dañoo takkook sëriñ bi ba am li ñu am ñun nag sëriñ bi nekkatu fi nan lañ mën a def ba am li mag ñi amoon ca Sëñ Tuubaa nag moom du fi jóg mukk <laughs> Sëñ Tuubaa du fi jóg waaye nag du ñëpp mën a jëflanteek moom nag ndax nekk gisatuñ ko ci kaw suuf ni ni gisee ñépp waaye yàlla defal na ko mu am itlaaq boo xam ni yoon wii moo ko yoral boppam sëriñ boo demee ci moom la muy def mooy raxas sa ndab rek lay def waaye duy ga moo ko yor mooy imdaad di dimbali nit di tàgganti nit loolu moom waaye nag suñoo jëkkee ki ne damay jébbalu ci moom ndax yow gisoo ko bis boo demee ba boo demee siyaare ko ca bërëbam bee janloog moom boo mën ngaa jébbalu ci moom boo àggagut foofu nag wutalib sëriñ ci gaa yi wa tawakkal ala al léegi nag boo ko gisul la waxa noo ñu def lu ñu def mooy nii murid yi def rek da nga wutub sëriñ ci sëriñ si dégg nga di def ci dog yi ñuy def mooy wirdul maxuus ak xasida yi ak tudd yàlla yi bokk ci dayra bi di def xidma te yéenew yow di ko wax di ko jëf moytu mooy yàlla sa kem kattan ak tooñ dégg nga lépp lu baax nga nekk ca tey bëgg sëñ Tuubaa rek <laughs> loolu boo ci nekkee maanaam yaag mag ña mag ña fi ne lañ amoon maanaam ñoom yomb ñoo jot moom waaye bu yàggee sëñ bi dana lay xool bëtub yërmande xëccal la boppam defal la loo xam ni du so rek lam defaloon mag ña <laughs> waaye day aaja nag loolu nag aaja nag positif bu kawe ak ak ak ak sellal gu wér ak dogg gu wér ah loolu loolu la aaja sëñ Lamine <laughs> jërëjëf Mbacke jërëjëf kii day laaj euh, bayit wi da bëgg ko firin in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi nas xiyaaru salafi xiyaaru salafi waaw loolu sëñ bee ko wax mooy boo dajewut ak muslix ku mën a defar ku mën a defare nee na na nga yem ca téere ya téere ya mag ñu baax ña bindoon ñooñu mooy as salaf salaf mooy mag ñu baax ñu njëkk ña tàmbalee ca saxaaba ya ak taabi'un yi ak taabi'u taabi'in yi ñetti xarnu yu njëkk ñooñ ñooy salaf salaf googu nag bokkut ak li ñuy tuddee salafiyee moom salafiyee ñoom ñi ngi tàmbalee ci ibnu taymiya nga xam ne septième siècle la ñëw moom koo xam nga bokkut ci salafiyee salaf moom waaye Sëñ Tuubaa ñi muy wax mooy mbooleem ñu baax ñi nekkoon ci maanaam mag ñu baax ñi bokkut ak asalafu saalix bokkut ak asalafu taalix ñoo ñee seenu yoon ca la bi nekkoon mooy ba bi ñu doon wax léegi ci kër ga mooy farixtu bi anni farixtu is kuntu farixtu is kuntu aqfu saaliha salafi maanaam ci salafu saalih ñoom ñee ñoom mooy ñu sëñ bi doon mooy ñu sëñ ba teg tànkam fañ nekkoon mooy ñi yónante ba lan yónante ba nekkoon ña ca nekkoon waaye nag muslix du fi jóge xam nga nun ñu murit lu bari war dañuy gaaw a ñaaw njort ne léegi kenn baaxul sëriñ si fi am na ñu baax ñoo xam ne boo demee ci ñoom ñu ñu teg la ci yoon wu leen nañ te sëñ bi waxoon na ne wal tus bi tan eh, déedéet déet musliha fi yi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa sabbitanhu bil haadil wafi ñaan na suñu boroom yàlla saxal ci këram ak njabootam ak yoonam wi muslih kon kooku du fi jóge moom waaye nag muslix aaja ne nga rafet njort wëliyu li fii yaa ngi ñaaw njort ci ci ci ci nit ñi doo dajeeg moom mukk maanaam xam wëliyu xam yàlla ko gën a jafe nit ñi nga gis sama kalaas nga gis ñuy wax ak nekk seeni kurus ak yi nii ñooñu mën nañoo bañ a mën nañoo sore lool ak awliyaa yee gaa yi awliyaa yi mën na nañoo bokk ci gaa yi nga xam ne tey boo leen gisee doo leen teg sax nit ku baax loolu nag rafet njort moo lay moo lay dajale ñoom te bis ba suñu borom xam ci yow yitte ji rek dana la booleeg ku la tegtal yadulluka ala man yadulluka alayhi yi ngoog moo tax yoon wi moom dangay góor góor lu nekk ci bis boo demee ba dëggu ba wér dëggu gi wér ci yow suñu borom dana la booleek koo xam ne moo lay yóbbu nag fa suñu borom moo tax jëru yàkkamti jëru fér-fér yi li ma seetlu ci mur yu bari léegi dañuy bëgg moom tey jii nga àgg tey jii dem tey jii maanaam mbir yëpp leer ci yow ci benn bis xam nga lool sëñ bi ku la ko waxit fi da lay indil jafe-jafe rek maanaam mbir yi mënta leerandoo ci benn bis daaw nga dox lu yàgg gaa yépp ci loolu lañ nekkoon <laughs> sëñ bi waaw na kii euh, kii day laaj ne ban taxawaay xam naa laaj bu yaatu la waaye xëy na sëriñ dinañu ko mën a tënkal hmm. ban taxawaay la jullit bi war a am ci jàppale daara yi daara yi xam naa jublu ci daara yi ak njàngum alxuraan waaw yu waaw daara yi de moom moom bërëb yi suñ boroom lañ kër yi suñ boroom lañ njabootuk suñ boroom lañ itam nga tax ne képp ku ko man nga di leen jàppale sa kem kattan loolu lu baax la lu am tuyaaba ndax kat yónnente bi wax na ne sunu boroom léeg-léeg mu yëkkati mbugal mu rëy bu ko wàcc ci jaam ñi waaye nee na bu xoolee tuut tànk yi nga xam ne ñoo yor seeni ëlliwoo di liifantu ci biir daara yi da leen daal di yërëm bàyyi mbugal moomee ginnaaw noonu féete foofu nag kon jàppale leen moom lu baax la kenn ku nekkem kàttanam rek boo ko mënu yow kesit boo bokkee ci biir dayre bi te dayre bi am daara am ñuy jàngale ñu leen di jàppale yow yaa ngi jàppale daara bu fekkee dayre ngi teg ñu jël ci ab jàngalekat xamal na yow jàngalekat boobee suñu borom ni muy faye mooy day mel ne yaa ko jël day mel ne kenn ku ne ci mboolem yow yaa ko jël tuyaaba jël la lay defal loolu loolu mooy mooy mooy yoon wa jërëjëf kii am na ku laaj waaye laaj bi sëñ bi tont nañ ci biir waxtaan bi ndax suñu jaxasoo ak tubaab yi du wàññi dara si ñun yaakaar naa sëñ bi tont na ko ci biir waxtaan bi moom euh, kii day laaj waaw am na sëñ xaadim taal mi ngi doon laaj maanaam nu sëñ tubaa laaj lii mu laaj moom waxtaan la waaye xam naa sëñ moom na xool nu ngi koy tënkee rek nu dëgg-dëgg loolu waxtaan la moom <laughs> rab rabbaaniyul azam euh, euh, rabbaani moom sëñ tubaa mooy rabbaaniyul loolu def naa jekk na jataay boo xam ne boo ko tàmbaloon fii sëñ Lamine moom du nu may nu àggale maanaam waaye euh, lu bari lañ lañ ci dajale moom sëñ tubaa mooy rabbaaniyul azam moom sëñ Basiir daa wax ne xuliqa rabbaniyan maanaam dafa seey ci sunu borom waaw dafa seey ci sunu borom waaw Sëñ Tuubaa moom dafa dafa dafa seey ci sunu borom ala alladi bi si wasaltu wa ma taraddatu wa man fasaltu maanaam loolu moom mooy mooy rabba rabbani mooy léppam daa daa daa daa daa daa daa takkook suñ borom waaw sey gi mooy ak bëggam la seyal ci suñ borom wajal hawaaya taabian suñ na am na fu mu ko wax am na fu mu wax ne maanaam ak bëggam da ko seyal ci bëgguk suñ borom tabaaraka wa taala loolu mooy sey ay jëfam ak i meloom ak léppam it seyal ci bëgguk suñ borom rek ak tànnuk suñ borom mësta tànn dara moom sëñ bi mësta jéem a bëgg dara bu buñ ko dee ñaanal sax day wax ne da ngeen may ñaanal li ma suñ borom tànnal mu jox ma ko mooy li siñe la ji mbàkke mu baax moomee tëgg ñu di ko qaada lahu maxtaaral loolu moo moo wax ne dañ koy ñaana lool waaw fi mu ne musta jañ musta ñoddi yaa wa loolu moom lu gudd a gudd la mooy sëñ moom ab rabbaani dëgg-dëgg rabbani xam-xam laal na ci waaye loolu lépp wet yooyu yëpp boo xoolee da ngay gis ne sëñ boom mooy digg digg ab rabbani waaw sëñ ma sëñ Lamine waaye sëñ boobu tënk nga ko waaye nag <laughs> moom am na solo mooy bi wax suñu dugg ak tubaab laaj bi wax diggam ak diggam euh, diggante maa ñi nekk fii ci réew yu tubaab yi ak seen digg ak tubaab yi laaj bu am solo ngi noonu ndax tubaab yi xam nga duñ ay jullit amoon nañ diine itam waaye ñu ci bari ñoom fonkuñu diine ji loolu nag ni ngay jëflanteek ñoom lu mat a bàyyi xel la la ci jiitu nag mooy nga xam ne ñii duñ ay jullit waaye nag ay doomu aadama lañ doomu aadama sañ ngaa jëflanteek moom ndax sa mbokk la ci biir doomu aadama gi sëñ ngaa waxtaan ak moom sëñ ngaa jokkalante ak moom bu dee ñii nga xam ne dañoo amoon téere nasaraan yeeg yahood yi sëñ ngaa lekk seenu ñam ci ay ci ay anam sëñ ngaa jël ci ñoom soxna sax donte loolu lépp ci borom xoxom yi dañ ko sib am na loo xam ni noog ñun ñoo ca xaw a ñoo ca xaw a bokk loola mooy fi ne sañ ngaa waxtaan ak ñoom sañ ngaa jëflante ñoom sañ ngaa ànd ak ñoom ànd bu rafet wala tujaadilu ahlal bi illa billati hiya ahsan maanaam sañ ngaa waxtaan ak ñoom waxtaan wu xóot dégg nga ndax dafa am loo xam ne ñoo ngi ñu ma ko bokkale ñoom seen diine ja wàccoon Seydina Isa gëm nan ko noonu qulu amanna billadi unzila ilayna wa unzila ilaykum kon nga xam ne sa mbokk la ci ak doomu aadama sa mbokk nag sañ ngaa dimbalanteek moom sañ ngaa jàppalanteek moom ci lépp loo xam ne nag du xajamal sa diine du la dugal ci mooy yàlla loolu yaakaar naa moom mooy mooy mooy mooy mooy moom la man tasaamu wax daal la aajowoo seen suñu digg ak ñoom jëflanteeg ñoom it jëflante bu rafet bu ànd ak jikko ju rafet joxlanteeg ñoom dugganteek ñoom ci anam goo xam ne dañuy gis taarub lislaam ci yow loolu gis naa lu lu lu lu baax la ndax diine ji nu yor diine yërmande la joo xam ne ñépp a ko aajowoo wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiina mi ngoog kon sëñ sëñ tamit loolu xëy na jamono amul waaye kon dañ ci gën a taxaw jërëjëf Mbacke xam naa mbokk yi déggul seen laaj nañ ñu nañ ko baa rek xam naa dañuy bañ jataay bi yàgg lool ñu bëgg a jox sëñ imaam alkaali mu mel ne am na lu bëgg laaj moom xam naa laaj bi da neexuta kii ci mbind xam naa dama koy jox mu laajal ko mu laajal ko ko bu ko defee bu noppee ñu tëjee jataay bi laaj yi ñu waxoon ci jëm ci wirdul maxfuus ak yu ni mel sëñ bi bu ko defee soññee ci bu ko defee ñii ñëw yeesu yeesu ñi ñëw jël wird wi ñëw jël ko après bu ko defee nu mën a yëkkati jataay bi ñaanalante yaakaar naa bu ko defee ñi nga xam ne ziyaara guñu woon ci tàmbali bi ci buñ ci mujj gi ñoom ñi nga xam ne dañoo ñëw ci diggante bi ñu ñëw ziyaar ziyaar sëñ bi doog a doog a doog a kii yaakaar naa noonu baax na de wala da ngeen doyul jataay bi taala man man kay yàkkamtiwuma man kay yàkkamtiwuma baax na e ah man de kon kon kon kon nañ jàllale yenn laaj yi nga xam ne jàllagul woon eh, waaw waaw dina dinaa ko jox suñu alkaal naa la jox léegi nga nga kii bu waaw kon waaw kii de laaj ne day dégg ñuy wax ni am na bàkkaar yoo xam ne ku ci jaar dootoo mën a bokk ca gaayu yàlla ya te su boroom wax ci xadis xussi ne sama jaam euh, sama jaam bi nu bàkkaaram mën a toll bu ñëwee wut si ma ma gàttandu ko waaw neen loolu la bëgg ak leeral itam ma dolli ci itam nitu yàlla yi nga xam yi nga xam ne am nañ jaar jaar yi doy waar itam ah, yooyu waaw mën nañoo dool tontuwaale waaw xam nga bakkaar moom ak bu mën a doon rek ak nu mën a toll suñ borom da koy jégale loolu suñ borom mën a ko wax moo ne ne qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah teg ce ne inna allaha yaxfiru dunuba jamian maanaam sama jaam bi yow mi nga xam ne dangaa def lu ne tooñ gu nga tooñ ko musiba mu ne nga dugg ci lu doy waar lu ne nga def ko nee na loolu lépp bu mu tax nga naagu sama yërmande jàpp ne duma de la yërëm nee na saa yoo ma jéggaloo rek ma jéggal la am na beneen xadisu qudsi yi boo xam daa wax ne na aadama innaka maa daawtani wa rajawtani gafartu laka maa kaana ka wala ubaali nee na yow doomu aadama bi li feeg yaa ngi may woo di ma yaakaar rek lépp loo mën a def dinaa la ko jégal na aadama law ba balagat dunubuka anaana sama summa staghfartani ghafartu laka wala ubali sa bàkkaar yi bu ñu ko tegale woon ci kaw suuf ba mu fees ko ñu yóbbu ko ba ca asamaan sa li di bàkkaar xam nga ko am loolu moom amut waaye nee na bu bàkkaar yi tolloon noonu nga xam dañ ko tegale mu fees suuf sépp tollu dem ba ca asamaan sa itam nee na saa yoo dikkee fi man de ma jéggalu ma jéggal ma rek ma jéggal la mu teg ca ne yab na aadama law ata law an law ataytani bi quraabil ardi xataaya summa laqitani laa tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha maghfira feppi suuf si ni mu toll boo ko defoon ci ñaawteef ak lu bon saa yoo dajeeg man ma xool gis ne bokkale ma woon ak dara dinaa la jégal xam nga inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi sëñ Tuubaa am na nu mu ko daa firee mooy boo faatoo ba noppi boo faatoo ba noppi maanaam bàkkaar yépp suñu borom mën na la ko jéggal moom ci ak mbaaxam ba mu des nag bàkkaaru bokkaale bàkkaaru bokkaale moom bu fii ci kaw suuf bala ngay faatu boo ko fi jéggaloo mu jéggal la ko boo ko fi jéggaluwut nag moom mën na laa indil jafe-jafe ëllëg waaye loolu ba tey génn goo yërmaandeem fi ne ba tey waaw maa ngi doon li keroog kenn ci nit yàlla yi yàlla da ko daa gis iblis iblis ne ko man de ba léegi fi ne maa ngi maa ngi yaakaar yërmande yàlla <laughs> mu ne ko yow xam nga yërmande yàlla wala ko yaakaar <laughs> ndax suñ borom moo wax ne wa rahmati wasiat kulla shay'in teg ca fasa aktubuha lilladina yattaquna ñii la ko yàlla jagleel iblis ne ko yow loolu sa jikko la maana seete gi nga seete ay nit yooyu loolu loolu loolu sa jikko la waaye yàlla loolu du jikko yàlla ndax aaya bi xam nga daa wax ne sama yërmaane xajoon na ñëpp wax ne ñii dinaa leen ko jox waaye waxut kum ci génne fi ne xam nga moo tax lu waaye mën a def ci bàkkaar bu jégguloo rek jéggul gu wér ci moom rëccu tuub suñu borom mën na koo jégal te du yem ci lool sax maanaam cër bu ne mën na ko am ginnaaw ba lii sëñ la mel jund junj nit yàlla yi gën a mag fi ne ku mel ne Fudayl ibn Iyaad nga xam ne moom da daa agressé moom ci àll bi la ne nga xam ne moom fu lu fu ko romb loo yor mu nonk daa dugg ci kër yi itam di fob mujj ab xale sax buñ koy tiital dañ ko wax Fudayloo ngi ñëw waaye benn bisi la yéeg ci kaw miir bi bëgg a jël dara fi bërëbu jàmbur dégg kuy julli bay wax ne alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah maanaam bi mu déggee aaya bi mooy aaya bi day day wax day wax ak moom maanaam ñi nga xam ñoo gëm yàlla xanaa jotul nag ngeen del si fi man <laughs> nga soxol eh, maanaam ragalaat ma nga bàyyi ma xel xanaa loolu jotul nag mu ne nag aaya bi mu ne yàlla man ngay waxal ne aana yaa bi daal di wàcc keroog la tuub waaye gis nga fudub nu ayaat fi ne ci nit yàlla yi gën a mag ci la bokk kutub xadis yi maanaam xadisam ci ñuy gën a wér xadis la bokk dañ koy jële ci ci ñi jële xadis la bokk ndax jamono taabiun yi yaakaar naa wala taabiu taabiin yi ci la wala taabiu taabiu taabiin yi kon bu ñu asalaf moom ci la bokk maanaam moo tax nit ki daal lu mën a def suñu borom wax na ne guddi gu ne dana tàllal loxo waa suuf si ne xanaa amul ku bëgg ma jégal ko ci yéen nee na bëccëg bu ne itam dana nu tàllal loxo ngir ku jéglu rek mu daal lay jégal yabsutu yadahu bil layli li yatuuba musii'un nahaari maanaam bëccëg bi day tàllal loxo ne mboolem li ngeen def ci bëccëg bi kaay leen ma jéggal leen ko guddi gi dana tàllal loxo ne mboolem li ngeen def ci guddi gi kay leen ma jéggal leen ko kon kooku bakkaar yi nag am na am na gaafuk bakkaar yi loolu day am su suumul suumul dunub loolu day am moom am na gaa bakkaar yi am na xeeti gaaf yu muy àndal yoo xam ne mën naa yeexal sab dox jéggalu bu wérit mooy tax nga teqalikook moom cër yi itam tëkkuwut ci yooyu yëpp moom moom mi ngi aj ci coobaree suñ borom da góor góorlu ba suñ borom tànnal la boppam allahu yajtabi ilayhi may yashaau wa yahdi ilayhi may yuniibu baa moom ci mbirum suñu borom yaxtasu bi rahmatihi may yashaa dalika fadlullahi yuutiihi mi ngoog loolu coobaree suñu borom ca la ca la ca la ajo waaye yow mi doxit bul jéem a wut ay cër xam nga maanaam àgg ci ci bërëb àgg àgg yooyu yëpp bu mu la yitteel kii dox ngir bëgg a àgg fenn kooku maanaam ku ñàkk tawféex a ngi noonu ndax foofa du ko weesu te yàlla daa yëmut fenn Sëñ Tuubaa dara wax ne lu ngeen am ci yàlla na ngeen ko jéggi te xam ne lu ko kawe ma ngi ci kanamam fekkee yow maqaamam sàngam nga soxla maqaamam boo fa àggee dangay ngay taxaw xam nga ñaareel ba yàlla taxul ngay def fi ne yàlla mën na la ko jox waaye doo du la boole ci xajjam yi ndax yow taxoo ko taxul taxoo taxul ngay jëf xam nga yow maqaamam yi moo la yitteel <laughs> maanaam jéemoo yàlla maqaamam mi ngay jaamu xam nga gaa ñu leen wax ne kun abdan lil fattaaxi wala kun ab wala takun abdan lil fattaxi Sëñ Tuubaa moom la wax ne wala takun bil fattaxi dastijaali li annahu lmaxiidu lirrijaali bi noonu la ko wax nee na nee na góor bu doon gis baax góor yàlla yi bu ñu doon gis baax seen baax mooy yàkkamti maqaama yeeg ak àgg ci fatu <laughs> ami ngoog sëñ Lamin mel na guddal ah, fanaan déedéet eh, am na ku mbokk mi laaj laaju fiq mu wax ne maanaam koo xam ne daa fase soxnaam eh, maanaam fa soxna si daa am daa am doom fekk fase woon na ko xanaa loolu la loolu daa fekk daa am doom soxna si daa am doom fekk fase woon na ko léegi ndax waaw ndax bu amee doom rek e, dina ko mën a fay li am déet ndax bu amee doom ji day day jeex si loolu loolu la wax ci li xanaa lu fiq wax waaye ndax dina ko mën a fay li fay li fay waaw da ko fase woon soxna si am doom gannaaw gi maanaam idda ji moom bu jeexee xam nga dañ koy fasaat man li fekk idda ji jeex nag may na ko def li ñuy wax fay li man na ne ko jëlaat naa la rek mu daal di doonaat soxnaam waaw déedéet nàmpal bi bokkut ak bokkut ak idda ji dara maanaam eh, maanaam ki kii ëmb bu amee doom rek idda ji jeex na idda ji jeex na maanaam nàmpal meneen mbirum boppam la nàmpal meneen mbirum boppam la sëñ sëñ moo jëng daa mel laaj bi daal dese leer waaw waaw waaw léegi fay léegi kañ lay doon des naa leer ci man de. des bu ma déggee li wax. mooy li fekk idda ji jeex li fekk muy am doom ndax sañ na ko fay waaw loolu lañuy wax ne maanaam idday ku ëmb moom mooy mu am doom li fekk muy am doom nag fekk muy am doom rek mën na ko fayli mën na koo jëla mën na ko jëlaat naa rek <laughs> fii nag moom dañ ciy ay proto yeneen mbir la ñuy jaar waaye boo nekkoon jëlaat naa rek mu doon sa soxna bi <laughs> ne ki nekk ci tasawuf Euh, nan lay def ngir xam ne bakkanam nekkuwul ci bakkanam waru wut daal xam ne bakkanam nekkul ci waru daal ndax mi ngi ci yoon wu wér wi ki nekk ki nekk di dox xam naa saalik bi la ci jublu rek nan lay xamee ne nekkul nekkul di waru daal ci dox bi waaw xam nga ki kii dox ci yoonu tasoo moom dawuta dox moom kepp fi ne booy dox moom yow kepp fi ne sa sa dara du leer doo wóolu sa bopp doo am dara lu wóor itam dangay ngay wutib sëriñ tasawuf des des des ci ma sëñ Tuubaa mëx mëxi tasawuf la ko tuddee ab ab la ko tuddee àllub gott boo xam ne nee na maanaam lu ne ngi ci biir àll bi luy fàdde lu ne ak luy yàqale mi ngi ci fa man bi mëx mëxi tasawufi nazal bi geyri tashyii murabbin qad kamul fa innahu yaxuudu fi baxri rada wala yajiu minhu sheyun abada loolu la sëñ li annahu yaquuduhu seytaanu wa nafsu wal hawa kama abaanu nee na bu fekkee da nga jëkk rek ci gottu tasawu bi te andoo cee ku ko xam yaa ngi xuus ci géejug alkande loolu la sëñ Tuubaa te nee na dara doo ko am wala yi jiw seyun mooy dara doo ko am moom doo dem fenn yow xamoo fa nga jëm xam nga mën ngaa dox ba del si fii nga nekkoon bu subaa nga xëyaat bu bëccëgee nga gis ne yaa nga fa nga nekkoon di wër ndekete fii nga nekk ndekete <laughs> génnoo ko doo dem tubaa mukk ndax yow xamoo tubaa nii la wala na le wala fële da ngay làmbut rek man ngaa jëm nii fekk tubaa nga ci ginnaaw xam nga xam nga yow loo xiir xiir fi ne doo àgg Touba moo tax nag loolu tasawuf moom des ci sóobu ne xam nga sëñ Touba ba mu waxee ne awwalu waajibin alal murid yooyu yëpp man nga ko wutal sa bopp wa maanaam jaamu yàlla yeeg fiq maanaam yooyu yëpp waaye dafa ne wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday mukammilin yaqfu rasul yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada maanaam faw booy soobu da nga ci ànd ak ku xam ku mat te mën a matale teg tànkam fa sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di la wommat ci kaw xam-xam xam ak jaamu yàlla kooke dina tërbiye itam ci bàyyi aada mooy li sa baggan bëgg li sa bakkan bëgg ak topp sa bakkan loolu bu yàggee nga mën a dem fa gaaña jërëjëf ki aw bayit la indi ci nuuru daare ni si xas dëgg sëñ bi ah, mu wax ne eh, xam naa du ko leeral bayit bi wakun liya dahra wakun maayi wakun lii saaiqan naa ci dara nag <laughs> ndax xam mayi wakun li shaiqan fawqa maramiya bi kon ca waxaatal bayt bi wakun liya dahra wakun mayi wakun lii saaiqan fawqa maramiya bi kun ca mi ngoog xam nga wax jooju bi kun xar baax la daal wax xam nga maanaam xaw ma nag lu muy tekk dëgg-dëgg waaye kun kun yu bari yooyu xam nga benn bokk ci sa moroom xam nga li muy wax <laughs> wa kun liya dëhra wa kun ma'i wa kun lii shaaiqan fawqa maramiya bi kun kun yooyu benn bokku ci sa morom looy lu muy tekki isaan mi ngoog loolu moom ba no no no maanaam man day day sàkku suñu borom daal nekkal ko te ànd ak moom wommatal ko lépp itam luy xemem defam bi kun ci daraja yi kun fayakoon loolu mooy maanaam mu gàttal mi <laughs> eh. yaakaar naa de moom laaj yi li ci ëpp moom kon jàll na bu ludul ma fàtte rek léegi xam naa dañuy jox imam eh, alkaali mu laaj laajam bi bu ko defee sëñ bi mën a dalwaale tuuti wax ji daa xaw tuuti moo mën a xam naanaa leen yooyu bu ko defee sëñ alka sëñ sëñ alkaali bu jër mi ngi am benn sëñ man ko laaj dama la koy jox nga laaj ko rek eh, du ma la ko laajal moom <laughs> léegi bu noppee xëy nañ jox jëriñ mu laaj laajam boobu bu ko defee ñu jë ñu la mujjee laaj ci wiru maaxuus te yëkkati jotaay bi kon sëñ alkaali bisimilah. asalaamualeykum wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay dellu ziar bu baax a baax macha allah euh, laaj bi moom damay laaj euh, njëkk ma koy leeral ban taxawaay la war a am si loolu euh, ñun dañuy tuubal ñu bari si jumaa ji léegi nag gannaaw guñ leen tuubalee lu si gën a bari dañuy bëgg a euh, fas ay sëy te gannaaw xam nañ ne fii ñu nekk nii du sunu dëkk te li fiy dugal nit jafe-jafe yu metti la ngay laaj visa lu nekk nga koy laaj pour mun a dugg soo duggee it visa yooyu dafa am ay yu ñu tëral Euh, sa nekkin fii tamit dafa laaj ay réglement yoo xam ne dañ koo tëral euh, daje yi ñuy dajeek imaam yi sax dañ siy waxtaan di seet solution mais amul ndax léeg-léeg dal na ma ay yoon fii dañu atte yi dëkk bi mooy bañu ñu ngeen fas sëy waaye balaa ngeen di fas sëy nañ dem fi nga xam ne mooy euh, état civil si mairie ñu njëkk fas sëy boobu ba noppi ngeen doogo fas euh, sëy religieusement si wàllu diine ñun nag dañuy am jafe-jafe jooju ndax dangay gis ay jullit ñu ne ñu ñun dañoo bëgg sëy waaw ñun lijjantewuñu wàllu yoonu dëkk bi ñun ay jullit lañu dañoo bëgg a sëy waaw léegi nag ñun ñu nekk ci benn euh, jafe-jafe boobu xam ne mooy yoonu réew bi teg nañu si ne ñun bu ñu fasee sëy goo xam ne njëkk jaarul mairie maanaam ci état civil ab daanu mun nañu koo def ñun goo xam ne euh, maanaam bu njëkk bi xëy na mun nañ la baal mais bu dee ñaar mun nañ dem ba amande lu tolloog dix mille wala quinze mille euro te war nañ la see mën a tëj ndax am na imaam yoo xam ne tëj nañ leen si dëkk bi ngir loolu euh, te ñu bëri dañ boo leen ko waxee dañ koy oyofal léegi nag mu nekk jafe-jafe yoo xam ne ma laaj ñun ban taxawaay lañu war a am si mbir gu demee noonu waaw loolu moo doon laaj bi al imaam al qaadi Diouf bala ma tontu sa laaj bi sax moom yow dama lay ndokkeel bu baax ci seen jàkka ju am solo yi nga xam ne fa lañ jullee tey ji ajuma yàlla dogal ban fa duggee rek nu yëg mbégte mu rëy rëy ci jàkka ja ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne moo fa am ñu fekk fa xeetu jullit ñëpp ci ay nationalité yu wuute ñu ànd fa àndit wu rafet itam ak mboolem li jàkka ja làmboo ci euh, former ay ay ay ay ay ay ay ayima takwin ayima ak njàngale maag dafa ne lépp loola moom ñoo ngi leen ci ndokkeel di ci ndokkeel mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo fexe ba loolu am fii bu loolu weesoo nag li nga wax nii nga xam ne koo xam ne day day day day tuub maanaam jébbalu di jigéen wala ak ànd ak góor goo xam ne da koo bëgg a takk bu ma juumut loolu mooy laaj bi maanaam bëgg itam ñu may leen ci jàkka ji ñu bañ a dem tribunal loolu bari bari na fu muy am du fii rek ba ca réew ma itam loolu dafay am waaye sëy xam nga fas gi li ci ëpp solo li ci ëpp solo fi mu ne mooy woy dencante yi ak seeni kilifa ànd ci ci sëy bi mu am kilifa ñu ne la may naa la ku nga ne nangu naa ko ba bii nii ak yooyu yëpp ak ñaan la ak barke bërëb bi itam lu mel ne jàkka ji itam daa gën a barkeel ci bërëb yi ñu di ko fi defee ba tax na loolu bu ñu dajee ci jàkka ji def ko ba noppi jëmmal gañ ko bindal ci këyit jëmmal gi ñu koy jëmmal ci aw kayit wax ne kii mooy soxna si diw mii loolu dara nekku ci rawatina bu ca bu naree jur nag ñu tëj imaam bi xam nga loolu ëpp naa def imaam bi nga xam ne mooy jiite moom bu ñu ko jëlee tëj ko wala ñu teg ko loo xam ni maanaam dix mille ndangam yi nga wax ne euro xam nga loolu ëpp naa fay loo maa ngi maa ngi jéggalu nag dama bëgg mu leer rek dafa am lu ma fàtte ñaari cas yoo xam ne euh, dañ ko façon ba noppi xam nga fii euh, jigéen yi moom ak góor yi moom seen tàqaliku dafa yomb euh, te buñ tàqalikoo léeg-léeg jigéen bi ne dama bëgg a bàyyi ku góor gi bañ a ne du bàyyi dañuy dem si yoon waa loolu la fàtte leeral te bu boobaa dañ lay woo am na si woo xam ne bañ ma woowee man dama leen ne Euh, dama leen euh, li tubaab di wax ñoom dañ leen bénir rek maanaam dañ leen barkel waaw wallaay ndax euh, lu lu sérieux la fii waaw lu sérieux la fi ba nga xam ne wàllu yoon boobu noonu ñaari yoon dikk na ma si si lu demee noonu bu boobaa moo tax même ñun suñu jumaa ji bilaal duñ fa fasati sëy waaw balaa ñu fay fasati daal day fekk nga dem am euh, mariage état civil ndax yoon fii euh, bañu ko loolu mooy jafe-jafe bi ma bëggoon xool ja foofu noonu daal taxawaay bi macha allah. waaw euh, imaam loolu moom mooy li ma njëkk a wax rek mooy ginnaaw yow boo ko fasee xëy na njëlbeen gi mën nañ ci bañ a xam dara bu ñu demee ba mbir ma am jafe-jafe mën nañ laa woo yow imaam bi léegi njëlbeen gi foofu foofu nga koy teel lijjanti ndax fa sayit mënta ñàkk jullit ñi daje itam mu am ay seere ñu ñaanal ko yàlla ñaan yàlla sëy bi bi barkeel loolu lépp lu ci am solo la ma tax defe ko jàkka ji itam moo ci gën ndax jàkka mooy bërëb bi gën a barkeel ci ci ci ci bërëb yi kon loolu moom def ki baax na léegi nag la ca topp nga xam ne moom lañ moom lañ soxla mooy ñu jëmmal ko ci këyit la ci njëkk mooy ngeen xool këyit wala lañ cey bind bu dee dañ ciy bind ne diw mii mooy soxna si diw mii loolu dara nekku ci fee ca réew ma fi ne tàmbali nañ ko fa fi ne jàkka yi boo bëggee dañ la ko bindal ci këyit loolu loolu loolu loolu na ci am na réew yi jullit yu bare bare yoo xam ne moom kenn du maye say nii rek nii faaw dañ bind ci këyit moom réew jullit yi ñu xam ne ay Maroc ak nangam yooyu déedéet doo ñëw rek may nii déedéet dañ la koy bindal ci këyit ne diw mii diw lañ ko may bind ko itam ca tribunal ba nga xam ne boo ëllëgee bu jafe-jafe amee ñu xam ne kat diw mii diwoo ko yoroon ci waxtu sàngam lañ ko ko fasal loolu rek mooy kayit yi xam nga kayit bu ñu nee kayit ak tribunal dañuy jàpp ne lii mbirum <laughs> leneen da ci tàbbi waaye loolu moom dara nekku ci ci li ma jàpp dara ci li ma jàpp kayit wala lañ ciy bind rek moo am solo nañ xool ba xam ne du lu aay du diw mii diw mii lañ ko may képp boo moom dara du ci nekk jar na sax yow waa mairie bi nga wax ne wutal lay kayit nga teg fii ci jumaa ji mu ko dee ku ku ñëw na dëkk rek ngeen bindal ko kayit loolu am na ñu koy def bu ñu ko nangoo mi nga ma maa ngi jéggulu xam naa loolu sëñ alkaal yi wax ci loolu loi français yi ñoo ko indi waaye li ñu santaane sax ñoom mooy da ngay war a jiital mariage civil bi ci mariage religieuse bi may dem mairie ba wala ci tribunal ba su ngeen defee mariage ba ba noppi doog a dem ci jàkka ji def mariage. mariage civil koy defee moom. ah may googu na ëpp moom maire bi war laa may. non maanaam bu dee jullit yi ñoom bu ko bu ñu ko defee noonu état civil ba pare ci la ñuy doog a ñëw fii ci jàkka ji nag ñu maye leen ci lislaam xaw ma li ma jàpp mooy maire bi moom warutam nekk di maye naan diw man naa ko diw. ñoom seen ñoom waa dëkk kayit daal mën naa bind diw mi diw mi lañ ko may. certificat de mariage lay defar. waaye fekk loolu nag la ci gën mooy ñu jiitu ci jàkka ja ne waa ña doon maye kilifa yëpp maye nañ ba noppi ñu jëmmal ko ci kayit bi. ñoom nag dañoo bëgg civil bi nay jiitu religieuse bi bi lañ bëgg nga jiital ko ci religieuse eh. nga li ma ngi doog a dégg li waa dëkk bi ñoo santaane loolu ñoom bala ngaa mayee mayeeti kenn ci religieux ci jàkka ja parce que xam nga fii doo def kap doo def këyit doo def dara da ngay mayee ci lislaam hmm. léegi nag ñoom ñu mayee ci kayit ba noppi yow nga doog a mayee ci lislaam loolu mooy li ñuy santaane waaw loolu waaw ñoom xam nga nag seen réew mi moom man bi ma fi duggee léegi li ma seetlu mooy liberté moom jàppoon naa am nañ ko waaye liberté ndekete amut fii moom <laughs> liberté moom ndax xam nit ki diineem sëñ bi loolu nag li ma ci seetlu li ma ci wax rek li ma ci jàpp mooy xam nga sëy lu ko fas daa yomb sëy lu ko fas xam nga daa yomb fi mu ne tey baayub ndaw si bu na ne woon may naa la sama doom ji sëy ba façon na daanaka sëy ba façon ba tax na bu fekkee ne lii nar naa doon jafe-jafe jar na ñoom ñu maanaam maanaam ñu may ko ko ci kër ga wala yu demee te bañ ko defe ci jàkka ji dañ koy bañ di waaye loolu duñ ci xam dara bu buñ toogee fii ne ma <laughs> xam du ko yëg loolu mën na ko bañ yëg moo tax moo tax ma ne loolu mënees na ko def doo ko dem nag ca tribunal ba ñu jox la kayit woowu ñuy joxe loolu mën naa nekk ginnaaw loolu day jur yeneen i jafe-jafe xam nga ci ci euh, fiq dafa am qaida usuliya bu ñuy wax ne al bu tajlibu tayshiir mbir bu demee ba jafe ba ba mënuta cee génn mënuta koo moytu loolu ba suñu borom lislaam da ci dugal ak yombal te rawatina sëy moom bu ci baay bi àndee mu am kilifa ami seere ñu ñu fas ko ak fu ñu ko mën a fase rek maanaam sëy ba sëy ba sëy ba dog na daal dinay doon soxnaam léegi nag dem ca tribunal ba protocole yooyu ñuy def moom bu fekkee weesuwut la ñuy wax lépp weesuwut ne diw mii di way maanaam maanaam di way di way borom këram loolu kayit yi la ñuy bind nu mu toll rek baax na wañuwu dara ndax loolu moo gën la cee toppaat ci jeexit yoo xam du ko jar rawatina ginnaaw da nekk ci réewum jàmbur fi ne maanaam yu bari fi mu ne daa mata da da da maanaam maanaam lislaam mën a la cee mën a la cee kii xam nga lislaam boo wéradee am na lu mu day teggin boo tëlee noonu boo demee ba mbir mi mënatoo koo moytu noonu boo demee ba ba am ba ba ba tële xam nga am am am na yu bari yoo xam ne dañ la koy teggal noonu rek la demee julli gii rek nga xam ne moo gën a kii am na fooy toll dañ lay aaye ne bul julli mbedd mii ñu la aaye am na fu ñu la toll dañuy wax ne lekk ci te wut ci yóbbal sàngara buñ demoon ba nga xam da ngaa fot masalan mu wóor la ne maanaam boo ko boo ko jëlaliwut mën ngaa faatu te kaasu sàngara bi fi ne dañ la wax ne jëlal gaaw nga nga góox bu ko dee mu jàll maanaam moo tax day am loo xam ne foofu lay foofu lay toll ad-daruraat tubixul maxduraat loolu danañ ko wax qaida la waaye am na beneen bi wax ne al mashaqatu tajlibu taysir mi ngoog xamul diwaan ba mu rek ñu xoolal la ko man de am ma xëy na mën nañoo yem foofu ci laaj boobu kii am na mbokk muy laaj maam fii mu wax ne di naan concubinage concubinage ci wolof mooy ñaar ñoo xam ne dañoo nekk dëkk di mel ne borom këram soxnaam te amul sëy lu kii maanaam la ba nee na bari na fii itam. Ah. léegi nag mu wax nañ ñaan ñoo xam ne dañuy def loolu def ko lu yàgg ma nañu ko def at sax doo a ñëw ne ñu maye leen. loolu sëñ bi ëpp naa def moom loolu kay sëñ moom loolu naa def maanaam ànd te te te te tëkkuñu ko loolu mooy mooy njaaloo gi ñuy wax di loolu moom baxul loolu moom sëñ bi yàlla na ci yàlla musal loolu kay ëpp naa def moom <laughs> ok sëñ bi. ëpp naa def moom léegi bu ñu ñëwee ne nañ leen maye terewul man lañ leen maye am de waaw dañuy laablu soxna si bois soxna si dañ koy laablu bois dañ koy laablu li nga moom lañ koy defal eh, bu ënt ak dara may leen ndax njaaloo moom xam nga du xaraamal du du kiyal ndax jëm mi dañ ko intibaar dafa amul xor xorma moom ndoxum njaaloo hmm. waaw dafa naa leer na laab lu yaakaar naa ñetti weer la. ñetti weer doon wala ñetti laab. ñetti laab waaw ñetti day toog ñetti règle daal maanaam ci gàttan waaw. am na mbokk laaj waaw. sëñ nga waa jooju nag mën na war naa tuub tuub gu <laughs> am na mbokk mu doon laaj sànq nee na fii lu jëm ci wàllu jëfandiku yi di jëm ci lekk yeeg naa yu mel noonu maanaam. lekk yi ñuy wax euh, xalal nga xam ne de euh, rey nañ ko reyin woo xam ne dëppoon naa lislaam bi am na xam ne dañu def ay ay wane ne lii xalal la daal mën nga koo kii nee na ndax bu amu ci bu ci amul loolu bu ci amut itam ndax it euh, mën ngaa mën nga ko mën ngaa jàpp ne rek xëy na xëy na xay na mën nga koo jëfandikoo daal ak lu mel ne itam yenn lekk yi wala yenn naan yi nga xam ne léeg-léeg ndax ndax da ngaa war a xool détails yi xool ndax am na lu mel ne sàngara yooyu wala yooyu teguñu la ko daal mën ngaa ñëw rafet njott rek kii. ah kay loolu nag sëñ bi mat na ko moom maanaam ah, ndox muñ la jox xoolal lañ ci bind ba xam ndox mi ndox <laughs> ndox lu mu doon <laughs> lu ko mat la lekk itam lu mat a wóorlu la ndax sàngara moom day lu xaraam loo xam ni suñu borom da ko bañ lool te ab julit waru koo jëfandikoo ci genn anam lu may lee ma wax ne nga xam ne da dem ba nar a faatu moom nga xam ne moom da nga fot ci lu mel ne noonu la ko borom xon yi misaale mbaam xuux itam noonu kenn waru koo jëfandikoo ci genn anam xeeti yàpp yooyu yëpp moom daa bàyyi yàpp ci boom maanaam bu ko jaree rawatina nag am na ci réew yi lu ñuy wax xalaal li ko waxee loo xam ne dañ ciy bind ne xalaal mooy rey nañ ko reyin wu dagan ka ko rey donte ab ab ab ab ab euh, chrétien la am na sart yoo xam ne bu matee rek bu fekkee loola lim rey nii lu daganoon la ci moom ak ci nun ndax lu mel ne juif yi am na lu leen yàlla aaye woon ci ay xeeti eh, mala lu mel ne tey yi nga xam ne seeni seeni seeni we dafa taqaloo comme kinaara yeeg baayeeg yooyu noonu xam nga yàlla ko xaraamaloon ci ñoom loolu moom donte dagan rey nañ ko reyin wu ànd ak wi ñuy wax maanaam du tax mu dagan ci noonu maanaam loo xam ne aay woon nañ leen ko lu tax mu dagan ci noonu lu mel ne ginaar ak te moo ci ëpp ci li ñuy lekk fii xëy na ginaar ak xar ak yooyu moom buñ ko rayee ci anam gu dagan nga xam ne tudd ñu ca keneen ku yàlla doone tudduñu kenn sax bu ñu tuddee yàlla képp baax na bu ñu tuddul kenn nit baax na mu hmm. ngoog kanaar baa kon dañ koo kii yooyu dañ leen ko aay woon bu dee juif yi juif yi boobu dañ leen ko aay woon hmm. te lañ leen aay woon donte rey nañ ko rey mu dagan du tax mu dagan ci noonu hmm. te buñ buñ buñ ñu rayal tam bu doon koo xam ne dañuy rayal waaye dañ rayal seen bopp leer mu noonu am na ay suróot yu ñu ci teg yoo xam ne bu ca daje leer na mbokk mi day laaj maanaam murit bu nekk France as xat-xat yi fi nekkee xam naa jafe-jafe yi maanaam nees mën a def ba dox ba mën a dem ba sëñ bi mën laa xool bëtu yërmande ba ndeysaan ndeysaan waaye nag xam nga sëñ Tuubaa loo ko gën a sore mu gën laa jege loo ko gën a sori mu gën laa jege sëñ Tuubaa fenn soriwut ci moom adduna sépp mi mi ngi fenn fu ne mi ngi mi ngi fi wetam cheikhun xay xay mi ko loolu laa koy waxa <laughs> cheikhun xay moom la li am solo mooy nga wéral sa digg ak moom ànd ak moom ànd gu wér te dëggu te ànd ak ànd ci ak pas-pas bu wér te dëggu itam lépp loo xam ne digle na ko nga di ca jéem sa kem kattan lu mu tere nga di ko moytu sa kem kattan loolu boo ko defee foo mën a nekk yaag moomay ànd loolu du waxee daanu kat rasulullahi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne al mar'u maa man a al mar'u ma man a xab maanaam kenn ku ne ka nga bëggal ka nga bëgg dëgg-dëgg ci sa xol te mu wér yaa ngi ànd ak moom boo ko yëgee ak boo ko yëgut ba tax na loo nekk ci biir tubaab yi tam léeg-léeg yow sax lay gën a mën a xetli fi ne am na waykat boo xam ne maa jàppul benn bi wax nee na ku jug ba jëm ci ak ak njabootam day mel ne gaynde gu ñu laal ay doomam boo nekkee ci biir dëkk ba nag mën na laa bàyyi ci biir mboolem waaye boo nekkee sori moom foofu daa mel ne fi koy fi ngay ba góorgóorlu dara rek yëg mi ngi ànd ak yow laaj bi kii aw bëyit ñaari <laughs> mel ni ñaari bëyit la sax xanaa dañ la koy jox bu fekkee yii moo nekk laaj yi mujj bu ko defee yii laaj yi jëm ci wirru maaxus moo ci topp ñu tëj ñaari ñaari bayit yi kon kon nañ ñu dibbali rek mu njëkk bi mooy tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama agna beneen bayit bi yaquudu lii wala yaquudu minni illa liman shitu bi izni minni ama nga nga tàmbalee ci bii xëy na <laughs> léegi hmm. bu dee bu njëkk bi moom moom day junj ne mbindam hmm. mbindam aqlaam yi dañ jur ay mbindam ay mbindam day àggale jaamukatub yàlla bi fa sun borom tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin du aaje ngay ngay wéet ak di def yi sufiyaan koy njëkkee daa def foofu nag yi ci mata seet mooy aqlaam yi la wax ak aabidan aabid mooy jaamukatu yàlla waxut ku bàyyi lépp ne man maa ngi féete xasida gi rek bu ko dee loolu yow ne ko aabid xam nga du àgg fenn aqlaam yi itam mboolem li sëñ bi bind da ci tàbbi boo jàppee ci xasida yi zikri yi bàyyi xasida yi euh, xam-xam yi itam sab sab dox du gaaw moo tax dangay ngay jàpp lépp mbindi Sëriñ Tuubaa maanaam mënu mënoo jàngandoo lépp waaye xasida yi da ci maanaam xasida yi xam-xam yi da ci am dog ndax mooy leer gi lay niital yoon wi dinaa misaal kii jàng xasida daanaa ko misaal ci ab oto oto mënta ñàkk gaasuwaal boo xam ni mooy tax mu dox gaasuwaal boobu mooy xasida yi tudd yàlla yii ay jaali batoog nóoroog yooyu noonu xasida tudd yàlla yi kitaabati dikrun wa shukrun waaye oto itam gaasuwaalu képp fi ne bu ko yoree di dox dox bu xiir te amuti làmp mën naa dugg fu ne ba tax na làmp yi mooy xësidee xam-xam yii faw nga di ci jàng xam la sëñ ba wax ak fa nga teg sa tànk waaye oto yitam du ay làmp rek ak gaasuwaal faw mu am ku yor ku laab gi di ko bijjanti lu ko mooy fu ne mën na faa dugg ba tey loolu mooy ab sëriñ sëriñ it mënta ñàkk ñett yi boo ci neena rek gis jeexit gis jafe-jafe moo tax loolu laa xaw a dégg ci weneen bay bi mooy yaquudu lii wala yaquudu min nii illa liman shitu bi nii bi idnin min nii ah loolu waxi sëñ Tuubaa la nag wax sëñ nag moom sëñ bi <laughs> eh, xam nga sëñ Tuubaa mooy kii jox ñëpp maa dinaay wax ne eh, loolu moom moom moom am naa ci tegtal daal yoo xam ne moom laa jàpp maanaam du waxi eh, man eh, man naay wax ni ci ngelaw waaye lu ma wax rek danaa ci jéem a am tegtal waaye sëñ bi xolam boobee mooy centralu courant bi nga xam ne lépp lu jaar ci ruuxuk yonente ba ci leer dana rot ci ruuxuk Sëñ Tuubaa dem fu muy doog dem léegi nag maanaam courant central ba du ñëpp ci la ñuy jëlee xam nga am na ñoo xam ne poste bu ndaw bii ci dëkk bi moom la ñuy jëlee courant am ñoo xam ne pot làmp bii nga dendal ci la ñuy jël waaye ñoom ñëpp fañ déparé mooy ci central ba léegi nag central bi moom suñ boroom a koy jox xam nga maanaam yónente bee koy jox loolu mooy suñ boroom a koy jox yónente bi waxoon ne allahu al mu'ti wa ana al qaasimu loolu yonente bi waxoon donn gi mu donn yonente bi daa àgg ci maanaam yonente bi moo koy jox direct léegi moom nag am na ñoo xam ne moo leen di jox waaye lam leen di joxit day aaje suñ borom bëgg leen koo jox du ci ngeen day wër di séddale nii rek déedéet da am aw yoon woo xam ni maanaam suñ borom ci moom moo ko moo ko rëdd nga xam ne sëñ bi danay mooy joxe waaye kum joxit maanaam day day day fekk suñ boroom maanaam bëggoon ko nammoon ko maanaam suñ borom jox la jaare ko ci sëñ bi loolu la xaw a dégg ci maanaam yi doonte sore naa nag murid yu bari nag la ñuy wax <laughs> loolu la xaw a dégg yaquudu lii wala yaquudu minni illa li man shi'tu bi iznin bi min minni minni wala minhu minni minni ñaar yëpp benn ism bi la xam nga waaw <laughs> ah. kon <coughs> laaj yi ñuy tëjee rek maanaam xam nga luy jóge fi moom faw mu yëg ko xam nga loolu mooy isnu ba loolu mooy xam nga ruux yi dañuy jokkalante lii moom du mbirum xam nga ruux yi dañuy jokkalante te ruux yi li ñuy dundee ak leer la xam nga ak ak fu ñuy wax fayd al ilaahi nga xam ne kaw nu bépp ko aajowoo du cee génn sax doomu aadama waaye ñëpp aajowoo kenn ku ne lay tax nga nekk loolee moom la ñu leer leer jubluñ ci leeru Quran yi ba tey loolu la ñu tudde imdaad nag dafa am aw yoon yonente bi du ñëpp mën a jot ci moom du ñëpp lay jox ci wàllu googu du ñëpp lay imdaad ruuxu Sëñ Tuubaa nag mooy moom wér na ne lépp lu waay di am ci yàlla faw mu jaar ci moom loolu wax wa bii turaqi wa bii turaqi xisbaka alxufaada wallahu raqa bi ma lii qaada aqtaaba wa biitu raqil ulama yooy yëpp xam nga wax na ko te nam ko waxee noonu lañ ko gëmee am na fa wax ne minallaahi bil maaxi xusistu bi imdaadi am ñu koy jàng bi amdaadi loolu nag nañ ko waxee noonu lañ ko gëmee mooy daal mbir mi noonu laa ko xaw a jàppe mbàkke waaw kon mën nañoo tëjee laaj yi jàpp naa waaw kii daa wax ne maam day ubbi kaamil bi bëgg jàng alxuraan waaye day mel ne daal xolam yëf yi da koy gën a puus jëm ci xaside yi daal ngir mu dem jàngi eh, xaside kooku sëñ bi na na bësante xolam xol bi maa alxuraan mën cee <laughs> mën mën cee ñàkk mën lijjatee loolu waaw eh, xam nga sëñ bi moom moo ko digle kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilawatan li xayri dikrin xadru sim eh, moo tax da ngay jéem a bësante xol bi di jàng alxuraan leen nag nit yàlla yi daanañ ko wax mooy murid bii doo ko jóg kooku salaatu al nabi ak zikri yi moo maanaam mu saxal ko moo gën ci moom ndax buy jàng alxuraan du ci yëg caf bu demee ba ba maanaam zikr ubbi xolam boobaa buy jàng alxuraan ci geneen caf la ko jànge moo tax ba ma saa ci sëriñ ma leen laa bañ digal jàng alxuraan ci njëlbeen gi dañ lay digal ngay def zikr bu bu bari ba sa xol ubbiku boobaa booy jàng alxuraan moom moom moom moom ba alxuraan doo koy moom moom du dara du mel melati ni moom ci yow <laughs> jëriñ de moom lu mu waxee moom dañ ci fekk si rek maanaam laaj bi day loo xam ne kër gi ñu ne muy kër sëñ Tuubaa dañ fee bëgg a def jàkka ak taxawal fi di fi julli ajjuma ñoo ngi ci waajtaayam léegi nag waajtaay woowu ñu nekk itam ma bëggoon a laaj ndax jàkka yi ci dëkk bi bari na jàkk joo xam ne boo fa de boo demee ci jàkka yi ñafane am na ngir moo xam ne ci ngirum ngir mooma la ñuy dox ngirum saafi yi ñii ngirum ahmad yeneen yi léegi nag maanaam may laaj nun ñii nun kon buñ taxawalee suñu jàkka ji ñun ci ban ngir lañ war a dox benn ñaareel ba itam ndax maanaam bu ñu taxawee ne jàkk ci man ngër lañuy ñu war a dox wala itam ci ngërum mi ñuy war a li ñu fiy war a doxal ci ngër man ngër lañ koy war a àtte woo ndax am na ci jàkka yoo xam ne booy foo dem ci dëkk bi jàkka joo fi dem mën na leen ne ji jàkka ñoom ci ngër mii la dox waaw léegi nag ñun noo ngi bëgg a def may laaj nag ba xam noonu nan lan war a def waaw laaj boobu am na solo lool laaj bi am na solo lool xam nga noonu sëñ bi daam lu mu nu digaloon dana alaykumu bil malikiya fa innaha mutaharatun munawwara digal naa leen ngeen yem ci ngirum imaamu malik ndax ngir mu leer la te laab te sell te set ngirum imaamu malik moom mooy ngirum murit yépp loolu ndigalu sëñ Tuubaa moo tax kon amut yaakaar naa leneen lu ñuy def ngirum Maalik nag mooy ngir ma jiitu ci ngir yi mën nañ ne ndax ca cosaanul ngir yet jamono taabi'u taabi'in yi ñaari ngir amoon mooy ngirum ma nekk Kuufa ak Baxdaad mooy ngirum Abu Xanifa ak ngirum Malik ngirum Malik ñu ko tuddee mazhabu ahli ahlil xadis ngirum Abu Xanifa ñu ko tuddee mazhabu ahli ra'yi Malik moo mooy sëriñu imaamu Shaafi'i mi nga tudd léegi imaamu Shaafi nekk sëriñub imaam Ahmad ibnu Hanbal imaam Ahmad ibnu Hanbal mooy sëriñub Buxaari Buxaari mooy sëriñub Muslim ibnu Hajjaaj maa ñii ñu fi tuddaat ñépp sunu waa ji sunu kii nu sëñ bi booleel mooy seen kilifa ñoom ñëpp moo tax kooku moom amul leen lu yeneen mbir mu ñu lijjanti maanaam bu fekkee réew mi tënkuñu leen daal moom yéen man ngeen tënk ci Malik Malik nag bari na lu mu ak yeneen ngir yi ci misaal nodd rek njëlbeen gi du ñu wax ñeenti allahu akbar ñaari allahu akbar la ñuy wax jàkk yi sëñ imaam imaam Juuf ñoom ñi moom ginnaaw mbooloo ko séq séq ay jullit yu bari di fa daje mën nañ ko wéyal noonu moom yéen nag bu ngeen demee bay noddal seen bopp nag bu leen neex ngeen tënk ci noddu imaam Maalik bi nga xam ne mooy riwaayab Abu Mahzura ba te mooy wax allahu akbar ñaari yoon képp doog a nag wax ashhadu an la noonu la ñu noddee ak li xam ci ngiru mari rek waaw kon bii de am na laaj bu fi laaj bu am solo la daa mel dama ko jëloon waaye naa boole lépp rek sëñ bi ma bàyyi sëñ bi tontu bu fekkee ñu ñu ñu ñu ñu tëjaale sëñ xaadim sëñ xaadim laaj mu mujj wax léegi fàtte naa ko sax mbokk yi nañu dimbali rek ngir yàlla nga ñu ñu ñu ñu arrêté laaj yi daal ndax bu dul loolu mën nañ fay fanaan daal waaw nañu ñu dimbali rek arrêté laaj yi waaw ndax it euh, sëñ bi jataay yi muy def bari na xëy na bu tontuwul fii it mën na ko tontu ci yeneen jataay waaye bu dëkk bu mu dem rek ñu tënkee ko nii dina xaw a doy dina xaw a kéemaan waaw kii dafa laaj ne ñaan ñi ñoo bokk waaye kenn ki daa judd ci buumug sëy kenn ki judduwul ci buumug sëy <laughs> ñoom ñaar mën nañoo sëy ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey wala benn baay wala ndey ak baay benn baay baay lañ benn baay kii juddu ci sëy kii judduwul ci sëy ñoo bokk baay xam nga njaaloo moom dañuy wax ne du xaraamal du xaraamal waaye nag bu fekkee ne jëmmi baay bi ñoo ko bokk moom tamit loolu dan moom dana ko xaraamal moom ndax ndox ma menn la donte ndoxum maanaam njaalo du amul xorma du defar du yàq duñ ko intibaar duñ ko du amul xorma itam waaye bu dee dañoo bokk wenn wayjur moom booba moom dana xaram ñu ñu ñu ñu sëy ngir sàmmonteeg maanaam askan wi ak bokk yi bokk. waaw hmm. euh, léegi kon euh, ñu tëjee laaj yi li tënk euh, waaw bi ma doon wax naa dama ko doon fàtte waa ji kii daa wax ne lan moo wuutale ragal yàlla ak dëddu àddina. lan mu wutalee ragal yàlla ak dëddu àddina léegi yeneen laaj yi jëm ci wirru maaxuus ak eh, maanaam mënees na koo tënkee laaj yëpp yooyu yëpp manees na koo tënkee ci ñaari mbir lu jëm ci aju aju gu wér ci sëriñ bi ak lu jëm ci lépp loo xam daal daal wérdul maaxuus laaj bi jëm ci aju daa wax ne waaw ki waaw ki am na ku wax ne eh, lu jëm ci aju bi daa wax ne murit bi nga xam ne daa jàppee na boppam taalibe waaye amul wasila ndax mburit boobu dafa war a jébbalu ngir muritam nangu loolu jëm ci ak aju la jëlam ma boole kook beneen laaj kii daa wax ni maanaam nooy xamee ne sa aju sa aju wér na daal sa jaayante wér lu ñu nangu la sa jaayante lu ñu nangu la loolu mënees na ko xame xëy na mënees naa boole ñaari laaj yooyu jëm ci wàllu aju mu bàyyi la nga tontu ba noppi xëy na balaa ma ñëw ci maaxuus boo boole yëpp duma ko fàttaliku ah, kon bismillah ba nga njëkk wax mooy mbirum ragal yàlla ak ak ak ak dëddu waaw maanaam ragal yàlla sayidna ali ibnu abi taalib da ko tekki woon dafa xam ne mooy alxawfu min aljalili wal amalu bitanzili wal isti wal qanaatu bil qalili wal istidaadu li yowmi raxili nee na ñeent yi mooy mooy ragal yàlla mooy maanaam nga ragal jëmmi yàlla ci boppam xam ne yàlla mane na nu ne te buur la bu am kattan boo xam ne lu ne mën na koo jëfandikoo ci yow te dara du xew kooku mat a ragal la yàlla nga ko xam di ko ragal loolu mënoon nañ ci gën a yaatal waaye sëñ sëñ tamit lu taxu maa ñaareel mooy di jëfandikoo itam ndigal yi yàlla boo ko ragalee faw nga jëfandikoo ndigalam mi di bàyyi ay terem te doylu itam ci màndargay ragal yàlla la bokk ak waajal ëllëg mooy di fàttaliku dee loolu bukkut ak dëddu dëddu moom dëddu ak bàyyi la ak génne la li ngay bàyyi nag mooy àdduna ak waa àdduna waaye lool xol bee koy def tar tarkuka qasdaha bi qalbin li samat lool la sëñ bi wax fan fut yadal qalbi li zuhdin minha maanaam xol bi moo moom ngay fëgg moom ngay bu doon ay loxo danga koy fëgge seppi ko ci ndab li ndabul àdduna waaye nag xol bi da fexe ba àdduna bu mu ko dëkke waaye man ngay jëflanteeg àdduna nag dëddu tekkiwul sol yére yu eh, taq mbaa melaw kii wala bañ liggéey wala yooyu déer yooyu bokkut ak dëddu dëddu mooy sa xol ci moom bu mu bëgg adduna man nga ko yor ci sa loxo waaye bu du àgg ci sa xol moo tax ñaar yooyu wute nañ ci gàttal ragal yàlla moom mooy bàyyi xel gi ngay bàyyi xel yàlla di def ay ndigalam di bàyyi teram mooy wattu suñ borom ci di def ay ndigalam ak di bàyyi ay teram dëddu nag moom danga mooy nga bàyyi àdduna sii mu bañ a rëy ci sa xol am na ñoo xam ne àdduna da leen jaral lu bare bare bare bare àdduna nag bu demee ba woyof ci sa xol nga xam ne jarul la dara yow bëggoo àdduna nit ki nag mën nay sori sagar fi ne te fekk ku bëgg àdduna la ndax bëgg àdduna bëgg daraja da cee bokk ak bëgg alal ak bëgg nelaw ak bëgg lekk yooyu xam nga sëñ wax na ko ca ca ca ca kii yooyu yëpp loo ci bëgg bëgg nga àdduna sëñ sëñ sëñ bi ba njëkk ba ci topp mooy aju ji sëñ bi waaw loolu nag moom bari na itam ñoo xam ne amuñu sëriñ waaw xam nga aju sëñ bu so mu baax ma dafa am nu ko tënk sëñ Moussa ko moo ko laajoon laaj bii nii laaj ko ne ko maanaam aju gi ak yi koy firndeel yi koy jëmmal sëñ Mbàkke xamal ko ne ko aju mbirum xol la léegi nag yi koy jëmmal nag bari na xidma bii ñu doon wax daa mel la jël misaal ne dana ko jëmmal ëddi yi mën na ko jëmal ki nga xam ne day jël alalam tu waxtu ne di ko jox sëñ bi kooku loolu mën naa firndeel ak ajum ci sëñ bi ki nga xam ne itam day xidmaal sëñ bi kooku it mën naa firndeel ak aju ci moom wirdam bii moom sëñ bi ci moom waxal boobu ne ku ko jël maanaam dana la da maanaam danga ci amee ak aju ci moom jaayante itam dana aj dana la aj ci sëñ bi moo tax ah, taalluq yi koy maye daa bari taalluq nag lu mat a lijjanti la moom Cheikh Abdul Xudoos sama sëriñ bu baax ba da ko daa misaal ci ne boo demoon ca gaar bee maanaam saxaar gi wago yi nga xam ne moo moo ci taq nee na wuñ ci taqaleeg saxaar gi buy dem da ko yóbbaale waaye woo ci xam ne dañ ko teqi nga xam ne àndut ak saxaar gi bu saxaar gi déqi xam nga da ko fi bay xaw mag ñi àndoon ak di dem di dem gànnaar di dem ndar tubaab bi xam nga daa doy waar tubaab bi bañ demee ba Louga da leen dugal ci wago woo xam ne dañ ko teqi ak saxaar gi nga xam ne sëñ bi dem na ba àgg ba àgg eh, ndar fekk ñoom ñu ngi ci biir saxaar gi toog <laughs> waaye mag ñi kenn bu leen di pexe dañoo jàppantee loxo rek nes tuut ñu àgg ndar <laughs> moo tax taalluq mu lu am solo la mooy mooy mooy sa ruux jàpp ci ruuxuk ruuxuk maanaam càllal ak tarixa bi loolu nag jaayante nag man damaa gis ne lu baax la ci murit te mënta ñàkk ci murit jaayante mooy mooy damaa gis ne bokk na ci li nga xam ne mënta ñàkk ci murit ndax dafa am ay jeexiti boppam yoo xam ne bokkut ak wérdu li muy def bokkut ak xasiida yi li ñu def jaayante moom moo gaaw ci aj sa ruux ci ruuxu càllale gi mooy dangay ngay jaayanteeg ku jaayanteek ku jaayanteeg sëñ ba maanaam jaayante doo def doo fekk waa joo xam ni jaayante fenn nga jaayanteeg moom loolu mooy munqati moom fa man tawassala fa man taallaqa bi waasilin wasal fa man taallaqa bi seen wasal dañuy fekk koo xam ni jaayante naag ku jaayanteeg sëñ mag ba ndax yow si sa waa jii ngay wax taxul a jóg xam nga sëñ bee la tax a jóg maam Cheikh Ibra mu baax ma dégg naa dara wax ne góor day jàpp ci góor mu jàpp ca góor mu jàpp ca góor noonu noonu lañu def leer na euh, wala léegi li des mooy yi jëm ci wérul maaxuus rek xam naa euh, laaj yi ci ñëw xaw naa bari waaye da ngay dañ lay bàyyi rek xëy na nga def ci ab soññee lépp euh, laaj yi waaw waa am na ko wax ne maanaam ñetti siira yi ñu xam muy xaatim bi xafiif ak kaamil ndax mën ngaa di jëfandikoo ñett yëpp di ko jëfandikoo loolu benn la ci laaj loolu nañ ko def laaj yu gàtt rek léegi loolu moom mënta nekk moom sëñ bi maanaam <laughs> xaatim ak ak mën nga leen a boole xaatim ak xafif mën nga leen a boole waaye xafif ak kaamil boole ñett yëpp ko boole ndoo wax leneen buñ ko defee noonu dana gaaw kii daa wax ne euh, bi fan lay toll ba wirul xaa wirul maaxuus nekk farata ci moom murit yëpp farata la ñoom loolu maanaam ci misaal sëñ bee ko digle Mm. digal naa ko mboolem ñu aju ci man góor ak jigéen noonu la ko détaillé diirub ñu ne ci kaw suuf loolu kay moom yow ginnaaw sëñ bi digal na la maanaam loolu kay moom amul amul loo jàppe farata leneen <laughs> ak di xaar waxtu mi doon farata ci yow. kii daa wax ne ndax ñàkk jël wirdul maaxuus dafay wàññi dara ci sag murit ki ko am ak ki ko amul lu ñu wuute daal ki yor wirdul ki yorul lu ñu lu ñu wute ñàkk yor ñàkk yor wirdul maaxuus de teewul laa doon muri moom. waaye nag murit maa xuus si boo ko ci boole da nga gis da nga yëg ne boole nga ci lu diis moom <laughs> xam ne moom am tawféex moom waaw loolu loolu moom it moom it ki la koy jox sëñ bi moom maazun la wax ma maazunin waaye sëñ Mbàkke Buso mii moo waxoon ba tey moo ko leeral loolu moo wax ne ka ka koy jox dafa maanaam loolu wuuti wucc ak yeneen awraat yi mooy day am ndigal lu jëfe ak joxe jële woon ko ci ko amoon ndigalul jëfe ak joxe ba càllale gi dem ca sëñ ba ndax càllale goog yi mi ngi mel ne prise bi rek moom ci la léppi jaar bu càllale gi demee ba mu yàgg nag mu taxaw te aggu prise bi agul ci courant ba xam nga loolu courant da nga ko yeexa am xam nga <laughs> mi ngoog beneen waaw kii daa wax ne waaw kii daa wax ni kii yor mi wérul maaxuus da nga xam ne du mën a julli ci mbooloo ndax dafa am lu ko ciy fekk daal te loolu dara ko ci fekk xam ndax ndax julli ci mbooloo loolu surut kamal la moom laa ko jàppe bokk topp ci ahmad wudul hasan cee dalilu man raama dalil moom la ko sëñ mi jëkk jox da cee def ab téere boo xam ne ko tudde dalilu man raama dalil fii wirdi cheikhina al muqaddamil jalil moom daa jàpp ne wirdi yi maanaam suróot ay suróoti kamal la faslun fii suróoti kamalihi la am na nu ñu ko gën a diisal ku mel ne Mouhamad Abdalan Alawi am na nu mu ko waxee nu gën a diis waaye ñëpp ci sun kilifa yi itam Ahmadul Hasan mii dañ ci àndal ba tax na maanaam sart yooyu loo ci gën a góor góor lu mu gën a mat waaye loo ci bàyyi du ko yàq boo dee jàng wérdu wit bu yàggee lépp dana ñëwandoo fi ne sart yëpp da ci àgg bu soobee la ñaare ba fii ngeen ne it du ku bëgg julli julli mbooloo da nga man ko xam nga ba tax na loolu it maanaam da lay wàcc yow ba kër nga koy man rek julli mboolee jàkk da càggan waaye boo àndee kenn julli fii ci saal bi rek def def nga ndigal li ne tekki wut ni maanaam faw danga nga war dem ci jàkka ja waaw ah, jërëjëf sëriñ bi kii daa wax ne euh, maanaam wérul maaxuus ndeem euh, dañoo wax ne ndax sëriñ bi daa wax ne digal na ko euh, muy góor ak jigéen noonu nga ko waxee léegi ndax ku jigéen ki war mën na koo dem jël te du ci am digalul borom këram waaw dégg naa li nga wax maanaam <laughs> yaakaar naa man naa ànd ak beneen laaj itam xam nga xam nga xam nga ah, maanaam ndigalul borom kër topp borom kër du cégee ni loolu dañ ko ubbi nga xam ne lépp da ko ci war a topp fen dafa ay mbir yoo xam ne ci war a topp ci fiq bokk na ci bu la dee digal ci diine di lim lay digal ci diine nga di ko nga di ko def ak lu mel ne liggéeyi kër gi ak lu mel ne yu demee noonu yoo xam ne am na fan yi rek jataay boo xam ne lim naa ko léegi nag ndax danaa julli wala duma ma julli xam nga loolu doo ci laaj ndigalul borom kër leen nag am na mooy naafile am na naafile yoo xam ne bala ko def lu mel koor lu mel ne woor maanaam ngoo kooru ngatt nga bu ko tëg kooru ramadaan wala kooru fay loolu moom danañ bëgg maanaam nga maanaam mu sàkku ci ndigalul borom këram ndax bala mu ko woo di ko soxla te fekk mu woor waaye xam nga wérdul maxoos ci fanweeri minute nga koy def loolu sa borom kër sax du ko yëg moo tax loolu sëñ bi jàpp naa ne moom ginnaaw sëñ Tuubaa digle na ko moom moom amul muridina wal muridaati la wax xam nga al mutaalliqiina wal mutaalliqaati bihi loolu mu sëñ bi maanaam maanaam diigal ko borom kër bi rek waaye bu fi indi benn jafe yow demal jël wird bi te boo amee jot rek maanaam bu la soxlaa nga nekk ci itam waaye bu mu ne diis rek yow nga toog def sa wirdul maxut <laughs> loolu la yaakaar naa ma nees na euh, beneen laaj bu mbokk mi waxoon ni maanaam boo nekkee sa say waajur wala su xam ne sa kilifa la naa jubu ci kilifa gi jublu ci ak sëriñ waaye koo dëkkal mu nekk sa kilifa ndax euh, war mën ngaa dem jël wirdu maaxu sa du doo laaj seen digal doo laaj seen digal ñoom ñoom loolu moom ci ay teggin xam nga mooy li laajub soxna si ñu doon wax sax ay teggin daal laajut nga nekk ak nit muy sa kilifa ngay def mbir mu mu yëgut rawatina mbir moo xam ni laal am na jeexal ci sa dund walla aw danga nga ci jëflanteeg keneen fenn wirdu maaxu sax xam nga da dem ci jëmm mu jox la ko fi ne tey boo ko waxoon maanaam loolu waxtaan ceeg moom sàkku ci ndigalam mën naa tax mu yóbbu la sax ci koo xam ni mooy gën ka nga ko bëggoon a jëlee moo tax nit ki moom bu nekkee kilifaam li gën mooy lépp lu muy def mu fexe ba sàkku ca ndigalam koo kilifaam googee yaakaar naa euh, Baye am na laaj mu wax Baye Ablaye moom day suñu kilifa moom moom mënu moo ko gàntal wax na ne maanaam li mel ne lu jóge sëriñ bi la wax na ne gannaaw julli ku ne ngay def euh, fukk xulwa ñaar ak bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa i al aliyyil azim fukki yoon gannaaw julli gu ne mais lool loo ci xam daal loolu fukki lixlaas ak ñaari doom gis naa fukk ko sëñ bind moom waaye bi li ci des moom gisugu gisuguma ko maanaam fukki lixlaas ak ñaari moom sëñ bee bind wax ne digal na ko murit yëpp ñi yor wird ak ñi ko yorut noon noonu la ko waxe maanaam saa yu jullee saa yu jullee jullik farata rek nga jàng suuratul ixlaas fukki yoon ak ñaar ma qul huwa allahu ahad wax na itam daana wax ne day maye ngëm te ngëm jamono ji mooy li gën a mat wut ndax day day dëkkal tawxiid ci xolub jaam bi ndax ne daana wax sax ne maqaama mi gën a kawe fi ne mooy iskaanu tawxiid yi fil bi fex ba sa xol tawxiid dëkk ci moo tax mu daa wax ne loolu murit bu ne bu jullee na ko def waaye li ci moom moom awma ci xam-xam jërëjëf léegi kon yaakaar xam ne wala ñu bëgg koo jël wala ñoo ñëw jege si sëriñ bi xëy na lim leen ci leeral mu leeral leen ci jox leen ci ndigal jëmmi jëmmi jëmmi jëmmi texte bi nag euh, sëriñ bi jox na ko suñ xarim tàll yor na ko suñ abdu xudóos megg yi tal yor na ko bu noppee rek ñu leen dinañ leen ko yónnee waaye ñëw sëñ bi joxe joxe joxe ci sëñ Lamin lii sëñ bi wax lu am solo la mooy ki koy jëlit bu ko mënee jaare cib sëriñam mooy la ci gën waaw loolu mooy la ci gën ndax nit ak sëriñam itam waruñoo umpalante rawatina ci yu mel noonu loolu moom jaaduwul sëñ Lamine lii sëñ bi wax lu am solo la waaw waaw mi ngoog mi ngoog ngoog yow yaa ngi ci dox yow. am na sëñ Lamine lii sëñ bi wax lu am solo la mooy. nañ déglu nañ déglu sëñ bi mu am na ñoo xam ni seenum sëriñ dafa am lu mu leen jox maanaam ab taalibe bi nag la ko sëriñam jox rek moo ko jariñ loolu mooy yoon wa nga xam ne mooy yoonu njariñ ci moom bu demee nag ba bëgg caa dolli maaxuus day dem ca sëriñam laaj ko ne ko man de bëgg na doon bëgg naa ko wala yittewoo naa ko bu nee ko mu ko ci mu dolli bu nee ko bul ko ci dolli mu xam ne loolu la ko sëriñam digal lool loolu loolu sëriñ bi wax na ko waaye loolu sëriñ maanaam tali bi moom du juyoog leer na ñu koy waxee saa ne am na ñoo xam ne daanaka wirdu xaar lañ yor ba faatu wala ndax sëriñ xam nga am na ñoo xam ni maanaam digle na wirdul maxuus yooyu am na ñoo xam ne da leen jox yeneen i wird lu mel ne wirdul xaadir ak wirdul tiijaan ak wirdu saadali fi mu ne ñoo ñu wa leen sëñ bi jox mooy maxuus ci ñoom ndax sëñ bi yónnante bee ko ko joxoon ko ko joxoon Cheikh Abdul Xaadir ak Cheikh Ahmad Abul Hasan ak Cheikh Ahmad Tidiane ka ko joxoon moo ko jox sëñ bi nga xam ne dañ koy tudde xaadir rek waaye fi ne ca dëgg-dëgg du xaadir ndax yónnante bee ko ko jox xam nga nga xam naa ñoo xam ni ba nañ fi jógee saadali la ñuy def kon sunu waajur sëñ Muas mi sëñ bi doon tudd léegi ba ni fi jógee saasal yi képp lay def fi ni xam naa fee ñoo xam ne xaadir rekk la def ndax ka ko jox kaa ko ko jox dégg nga sëñ bu mag bee ko ko joxoon ñu far yem ci loolu ñoom dolliwuñ ci dara waaye nag am na murid yoo xam sunu sama sëriñ bu baax ba Cheikh Abdourahman moo ma waxaloon boppam ne ne ne man sëñ bi neena na ma sëñ Abdou Khoudous sage lii la ma joxoon waaye nag maa ko laaj wadul maa xuus am ñoo xam ne moom li jóge ci sëñ bi donte ñu ngi ciy tudd keneen donte sëñ bi la rek waaye nag maanaam mbirum sëñ loo xam ne maa xuus daal duñ ko yemal ak leneen daal am na ñoo xam ne foofu lañ foofu lañ kii waaw kon jeex na yaakaar naa yeneen laaj yi nañ ñu ko jégal rek nañ ñu ko jégal jotaay bi yàgg na lool léegi mbokk yi bëgg a yeesu wérdu wi nañ jege si ñi bëgg a yeesu wala ñi bëgg a jël wérdu wi man ñoo ñëw jege si seriñ sëriñ bi jox leen ko bu ko defee yaakaar naa loolu rek la ñuy yëkkati jotaay bi ah ñi bu noppee ñi nga xam ne ziyaara guñ sëñ bi mën nañu ñëw ziyaar ko bu buñ noppee yaa maaxuus jigéen si lañ bokk de jigéen ñi ku bëgg a jël maaxuus jigéen ñi ci lañ bokk de texte bi sëñ Xaarim Tall yor na ko sëñ Abdou Khoudous Mbengue yi yor na ko texte bi nga xam ne moom nas bi nas bi sëriñ bi di joxe wirdul Maxuus kii rek ñu noppee ñu yónnee leen ko